sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mboolem mbokk yi fi teew ci ay kilifa ak responsable rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoo ittewoo seen mbirum diine bay amal jataay yu mel nii ci jamono yoo xam ne jamono yuñ tànn la di ko teewe it teewaay bu rafet di ci jëflante it ak sunuy ndaw yoo xam ne ñu ngi leen ci jàppale eh, rawatina suñu mbokk al oustaz Abdul Malik activité yi mu def ak ñeneen ñi ko ci jéem a jàppale ci loolu ñu ngi koy yëg bu baax a baax di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu dolli leen tawfiq bindub tey bi nag nga xam ne dañuy ànd jàngat ko daa jëm ci tomp bu am solo ci lislaam ndax dafa aju ci shahaadatu anna muhammadan rasulullah seede gi ñuy seede ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy yonent bi yàlla bind bi dafa màcc ci wet googu xam ngeen ne lislaam ñaari seede la benn bi mooy wéetal yàlla ci jaamu ko beneen seede bi mooy wéetal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci topp ko boroom xam-xam yi di ko tudde tawxidul mutaabaa kon waxtaanu tey wi ci bu mutaabaa ci la jëm maanaam wéetal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ak topp jéem nañ koo séddale ñeenti tomb yoo xam ne benn bu ci nekk danañ ci jaar ci anam goo xam ne du gudd lool ndax nu mën a bàyyi ci waxtu loo xam ne danañ mën a déglu kàddu yiñ fi junji ci yoo xam ne xëy na ay kilifa dana ko jël ak jombul ay laaj yoo xam ne mën na fee rot itam ñeenti tomb yooyu bi ci jëkk moo di xaqiqatul mutaabaa yi ma définir xamle taarif lan mooy al mutaabaa ci boppam ñaareelu tomb bi shurutul mutaabaati saxiixa topp yonent gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp gu wér am na ay charte yoo xam ne su dajee dañuy wax ni kii kat yonent bi lay roy su ci dara manqué nag dañuy wax ne kooka royul yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ñetteelu tomb bi moo di adillatu wujubi almutaabaa wa makaanatuha fi diin firnde yi ñuy sukkandiku muy dalil yi wane ne dafa war ci bépp jullit mu roy yonente bi sallallahu alayhi wa alihi ak roy googu ñi koy roy makkaana muy place ak tooguwaay bi nga xam ne am na ko ci diine bu mujj ba nag ñu gàttal lu jëm ci asaarul mutaabaa muy jeexit yi nga xam ne topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf koy delloosi ci nit ñi maanaam da leen koy jëriñ meññet mi nga xam ne dañu koy jariñoo su fekkee topp nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo xam njariñ luy dellu ci kenn ku ne la wala dafa nekk njëriñ yoo xam ne nun ñëpp noo koy bokk loolu mooy asaaruha alal fardi wal mujtama kon ñu daal di wakkeerlu ci suñu borom tabaraka wa rek tàmbalee ci tomb bu njëkk bi muy xaqiqatul mutaabaa dañuy wax ne mutaabaa muy topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak roy ko mooy an yafala misla ma faala rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala alwajhi alladi faal wa an yatruka ma tarakahu ala alwajhi alladi tarak moo di li yonente bi alayhi salaatu wasalaam def nga def lu mel ne lam def te jublu ca lam ca jublu ngir ñi ne yow dangay nga yore yonente bi alayhi salaatu wasalaam yooyu mënta ñàkk da ngay def lu mel ne lam def te jublu ca la mu ci jublu loolu nag bunt bu am solo la ndax ñu baree baree bari li nekk ci seen xel mooy nit ku baax waxuma sax ak yonent waaye jàpp nañ ni nit ku baax sax sax gisu ko ndax mënee suta mel ne moom loolu la ñuy wax waaye loolu la chaque ne seytaane moo koy sànni ci làmmiñi nit ñi ñu di ko wax ndax nit ku baax ci dafa góorgóorlu ba am jikko yu baax bu dee yonent boroomam da koo defar ba def ci moom jikko yu baax def ko benn modèle yebal ko ne nit ñi mel leen nii ndax ngeen baax kon su nit taxawee ne kooku kenn waru koo roy ndax mënuloo mel ne moom kon loolu seytaan yi moo koy jaarale ci seeni làmmi ndax dañ na koo royloo boo melul ne moom it fexeel ba li ngay def lépp yow ba fa nga mën a yem suñ la ko laajee nga ne ci moom la jóge maanaam day aw yoon wu gudd ab yonent doxiinam yoon wu gudd la ki wax ne mënumaa dox yoon woowu wépp ba mu jeex wax na dëgg waaye bi nga xëyee yow ba fasab jant soo na fekk ne ci yoon woowu ngay jaar bu ñu laaj ci yoon woo jaar nekk ci yoon wi mu jaaroon rek laa jaar jàdduma de jotuma ko nag àgguma fa mu àggoon waaye nag jàdduma yoon woo jaaroon kon loolu lañ soxla ci yow li tax ñu ne nag jaamu yàlla gi wala li ngay jëfe faaw nga jublu ci lam ci jublu woon dafa doon lu am solo saabu bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam santaane ak jaamu yàlla jaamu yàlla googu ñu xam ne dañ nu ko sant ñun itam su fekkoon ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jublu benn place ñëw jaamu fa yàlla wala mu tànn jenn jamono jaamu ca yàlla su boobaa day jaadu ci nun nu nit ñu jublu place boobee jaamu ko yàlla tànn jamono joojee jaamu ca yàlla ci misaal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jublu na kaaba ga muy bérëb mu tawaaf ko kon sàkku nañ ci nun nu jublu kaaba ga nu nit tawaaf ko su fekkee mën nan ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk na aw doj wu ñuy wax xajarul aswad mu fóon ko ci biir julli ga ci biir ci biir aj ga kon sàkku nañ ci nun nun itam nu fóon doj woowee yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli na ci maqaamu ibrahim muy benn place boo xam ne ca kaaba ga la nekk yow itam sooy aj wala ngay umra sàkku nañ ci yow nga def lu mel ne loolee mu defoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéeg na ca doju safa ak marwa taxaw fa di ñaan di tudd yàlla béréb boobee yow itam sooy aj wala ngay omra ba toll fa sant nañ la nga yéeg fa ñaan fa tudd fa yàlla déplacé woon na ba béréb bu ñuy wax arafa mu toog fa bëccëgub lëm di tudd yàlla ak ñaan ak a yow itam soo ajee béréb boobee sàkku nañ ci yow nga jublu ko kon loolu moo tax la mu tànn mu doon béréb mu jëfe ko dañ koo tànn ci yow yow itam waaye nag su fekkoon ne moom alayhi salaatu wassalaam daa ñëw ci benn béréb def fa genn jaamu yàlla te fekk béréb ba taxu ko war a jóg tànnul bërëb ba itam waaye daf faa wàcc rek jaamu yàlla jot fa mu jaamu yàlla jot mu jaamu fa yàlla loolu tekkiwul ne béréb boobu yow da war a dem tànni ko jaamu ji fa yàlla su fekkee ñëw nañ ci béréb boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon na tukki ba tukki fekk ko fa ñu ne fii julli woon na fa nu ñëw di topp béréb yëm julli woon ne dan fay julli wala béréb ba mu toogoon di jàpp na ni dañuy tànn foofu noonu itam jàpp fa loolu suñ ko defee duñ nu tudde koo xam ne kuy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko wuutaleeg lu la la jiitu mooy béréb bële jëf na jëf ji ci saahir ñu teg ci suñ bët waaye dafa jublu place ba ci boppam itam jaamoo fa yàlla maanaam tawaaf ca Kaaba ga la ko defee julli ca gannaaw maqaamu Ibrahima la ko defee yéeg ca Arafa tax ca Safa ak Marwa béréb boobee la ko defee kon def na jëf ji waaye dafa ànd ak jubluwaay bu aju ca béréb ba ci boppam bi muy foon xajarul aswad kaaba ga amoon na ñeenti ponk te boobu rek la ko ñeenti koñ te koñ boobu rek la ca foon kon ma ne su fekkee romb na béréb rek julli jot mu julli fa wuñ ci yow nga ñëw ne da ngay julli ca béréb boobee moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu ci xadis bu wér eh, dafa nekk ci benn tukki mu julli suba bi mu jullee ba àggal mu gis nit ñi am ci ñoom ñi ñëw tànn benn béréb dafa julli ay rakkaa mu ne leen lii nag ñi ne ko fii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa masoon a julli kat moo tax nu di fi julli yonent eh, Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu ci fiqam ku dégg diineem mu ne leen innama halaka ahlul kitaabi aw ahlaka ahlal kitaabi annahum ittabau aathaara anbiyaihim fattaxaduha kanaisa wa biyaa faman aradat lahu salaatu falyusalli wa illa falyamdi mu ne leen banu israil li leen alak te alkande jëm mooy bàyyi seen diine di dox ba mu yàgg seen diine soppiku la leen ko teg nee dañoo seet jeexit ya seen yonent ya fañ doon jaar di fa julli ñu ñëw jël béréb yooye soppi ko mu doon ay église ak bérébi jàmmukaay yàlla nee na loolaa leen alal mu ne kon ku ci dox yéen ba julli jot ngay julli mu dajeeg foo xam ne yonent ba julli woon na fa ngay julli rek ndax julli daa jot loolu dara nekku ca waaye nag nee na bu dul loolu ne wéy na demu yoonam kon lii ñuy dégg ci jamono ñuy jekki ba mu yàgg ñu ne nit ku baax jaaroon na béréb sàngam nañ ko def jàkka wala nañ fa julli wala nit ñi di fa dajaloo def ko mu doon lu mel ne it wala feet wala jaamukaayu yàlla loolu bokkul ci roy nit ku baax ndax kooku jublu woon place bi woon place booba di fa jaamu ji yàlla waaye da doon ndox di dem rek jaamu yàlla jot mu jaamu fa yàlla kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñi xam ne roy yonent bi dafa am ñaari tomb yoo xam ne benn bu ci ne dafa am solo benn bi mooy al musharakatu fil fi'li mooy def lu mel ne lam defoon ñaareel ba mooy jublu lam jublu woon yooyu mënuñoo ñàkk loolu kon mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy def lu mel ne lam defoon ci jaamu yàlla ga te jublu ca lam ci jublu woon amma charte yi nga xam ne nag mutaabaa daf koo am muy roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax ne almutaabaa la tataxaqaqu illa ida kaana alamalu muwafiqan lilsharia fi umurin sitta ngir sa jaamu yàlla ñu ne dëppoona ak la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon juróom benni mbir yi faw mu daje ci kon juróom benni condition ba ci jëkk mooy as-sabab al muwaafaqatu fi sabab sabab si tax ngay def jaamu yàlla googu na dëppoo ak sabab si taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko def maanaam illa bi tax mu def ko na nekk illa bi tax nga def ko yow saa boo xamee ne nit def na lum tudde ak jaamu yàlla te la tax mu def ko nekkut loo xam ne sharia ko santaane kon googu jaamu yàlla bidaa lañ koy tudde boo xam ne dañ koy delloo boroomam waaye kenn du ko nangu ci misaal boroom xam-xam yi danañ ko di misaale lii nuy tudde laylatul israa wal mi'raj muy guddi gi tànn ne mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajam xam ngeen ne weer woowu soreetu ay nit suñ ko tànnee def ko jaamukaay yàlla def ko waxtu jaamu yàlla di ci def ay julli wala ñu tànn lu leen neex ci ay jaamu yàlla ñu def ko ci guddi googee loola dëppoo wut ak jaamu yàlla boo xam dañ ko sare santaane julli lu baax baax la sàkk sarax lu baax baax la woor lu baax baax la dañ li ci jaamu yàlla waaye nag soo ko wutalee rek sabab ñu ne la lu tax nga woor tey lu tax nga jëmu sa juróom benn rakka yi wala sa juróom ñaari rakka yi nga def nga ne ah loolu sax muy sabab bi mooy tey la vingt-sept ci weeru rajab te loolu lay dajeeg al isra wal mi'raj loolu moo tax ma tànn ko def ko dañ koy wax ne li nga def ci daala ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci bopp nga xam ne moom lañ reñaane

wala daf koy julli wala dafa am genn jaamu yàlla yàlla si santaan ànd ak ne borom xam-xam yi ñëw nañ ci ñëw bu rëy ci loolu kañ la woon ndax ñaar fukk ak juróom ñaar la woon ci rajab ñii ne ñaar fukk juróom la woon ñii ne ñaar fukk ak ñett ñii ne ñaar fukk ak benn am ak juróom ñeent ña ca weeru rajab kon ñëw bu rëy rëy am na ca ànd ak nag fekkoon ne xam nan nag ne sàngan la it amut ak jaamu yàlla buñ nu sant bu ñuy tànnal bés boobu da ko wutal kon kon dëpp dëppoo gi ci sabab mënut a ñaar jaamu yàlla gi door a doon koy yor yor sallallahu alayhi wa kon boo fekkoon kuy julli ñaari rakkaay yor yor nga xool ko ci bitti ci man nga ne ah kii de mi ngi roy yonent bi ndax daana julli yor yor waaye bu yi dama ko doon julli ndax tey dafa doon bis boo xam ne daa dajeeg nangami fan ci weer wi moo tax ma di ko julli dañ koy wax ne ko déedéet loolu sa jubluwaay day daal di soppiku su ko defee royatoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jaamu yàlla ci faw mu dëppoo la yonent bi doon def ci sabab sa tax mu doon ko def koo koy tomb bu njëkk bi ñaareel ba mooy al xeetu jaamu yàlla wi ci boppam faw mu doon nag xeetu jaamu yàlla woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xam nañ ko danañ ko di joxe misaal ci nit ki bu tabaski dikkoon mu tabaskee aw fas kooku xeet lam tabaskee saxul ci sharia de dees na ko tabaskee ànd ak na nag lu bari lu bari ci borom xam-xam yi saxal nañ ne fas dees na ko lekk loolu njërum Maalik yi xamuñu ko dañuy tere ku lekk fas waaye lu bari nag ci borom xam-xam yi ci njër yi ci def gis nañ ne fas dees koy lekk te boo xoolee xadiis yi da nga gis ne moo gën a dëgër waaye nag mënee su koo tabaskee kon su soppi ko su soppi woon xeetu la ñuy tabaski tabaski leneen ak tabaskiyam du baax wala mu soppi sax xeetu jaamu yàlla gi ci boppam am na ñoo xam ne jaamu yàlla dugal nañ ci loo xam ne dafa dem ba boo rombee ñi ni ñii dañuy jaamu yàlla da ngay waaru ci sa borom jaamu yàlla su demee ba àgg ci tëgg ak fecc lañ koy defe te am na de yor ay tëggukaay di tëgg tëgg mu xumb ay nit nekk ci biir di yeggaayu ñi ne lii li ñuy def ñu ne dañuy jaamu yàlla bismillahi rahmaani rahim loolu xeetu jaamu yàlla wu mel noonu soppi jin su jaamu yàlla kooku kay tëgg ka fecc di fo moo ko tane ndax kooku xam na ne day fo ci caaxaan la nekk waaye ki jël nag tëgg ak fecc ak fo ak caaxaan ak yooxu nit ñi dajaloo mu ne da jaamoo yàlla nag kooku moom jéggi na dayo yëmatul rek ci fo waaye dafa jël fo nag askane ko yàlla su ko defee kooka la muy def bi daala boo xam bu ñaawa ñaawa ñaaw ci diine la donte benn biddaa ci diine sax nag rafetul ñetteelu tomb ba mooy alqadr maanaam tolluwaayu jaamu yàlla bi am kemam nañ ne la na la toll sharia ne nii la nangam toll sañoo caa dolli sañoo caa wàññi it nag bu nit ki bëggoon a julli julli farata yi nga xam ne dañ ko farataal mu doon ñeenti rakka ñu julli gii ngeen jóge léegi julli takkusaan mu xalaat cim xelam rek ne ah ginnaaw julli yiw la te ñeenti rakkaa yi benn bu nekk am nag payam kon su ma ci dollee benn itam pay gi day yokku xel moom loolu lay wax day wax ne li nga def ñeent ñu fay la nangam boo defee juróom kon pay gi day yokk mu ne ah, xaaral kon ma dolli ci julli saan gi benn rakkaa su ko defee boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne julli gi lépp yàqu na fa kon xemum jaamu yàlla ga ni ñu la to ñu la toll boo ca dollee dara dugg nga ci biddaa dugg nga ci muxaalafatu sharia nekk noonu it su fekkoon ne wàññi na lu dul wàññi goo xam ne sharia daf koo santaane maanaam ku nekk ci tukki sañ na julli ga nekkoon ñeenti rakka mu julli ko ñaari rakka waaye nag ga nekk ñetti rakka moom sañu koo wàññi kon su wàññi woon tamit ni ci tukki laa nekk te ginnaaw la nekkoon ñeenti rakka wàññi nañ ci ñaar kon ki nekkoon ñeent ñett wax dëgg yàlla warees na ca mën a wàññi benn mu ne xaaral ma wàññi benn bi julli timis ñaar su ko defee julleem yàqu kon sharia noonu la bindoo dafa doon luñ la jàngal loo xam ne néewuñu la sam xel mooy dolli wala mooy yokk waaye nam toll woon noona nga ko saña a bàyyi boo ci yokkee wala nga ba bàyyi ca te tey ko sa jaamu yàlla yàqu ñeenteel ba mooy alkayfiya roy sunna ci melokaanu jaamu yàlla ga lenn lu ne na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam defe woon noona nga ko sañ a defe sañu koo soppi loolu moo tax ñuy wax ne jàng xam-xam dafa am solo jàng xam-xam lu muy jëriñ luy xam-xamu diine mooy ñu jàng ba xam yonente bi sallallahu alayhi lu mu doon def soo xamee li mu doon def nga def loola loolu kat mooy xam-xam lu wax ci bari bari ak lu mu néew néew nit ñi la ñuy jéem mooy jéem a xam kookee ca la mu nekkoon ndax ñu man koo def lam doon bàyyi lu mu doon ndax ñu man koo bàyyi képp kat xam-xam weesuut loolu moo xam ci julli ga la moo xam ci koor ga la moo xam lu mu mën a doon kon julli gi mu ko defe woon noonu nga ko sañ a defe sañoo ci yokk sañoo ci wàññi sañoo ci soppi njàpp mi noonu su nit ki di ne njàpp kat mooy raxas say loxo raxas sa kanam raxas sa tànk lim ko ba mu àgg mu ne li am solo mooy raxas yooyu yëpp kon fu ma tàmbalee mu neex mu neex ma rek mën naa fa tàmbalee dikk daal di njëkk a raxas ay tànkam di noppee raxas ay loxoom bi mu noppee galandiku juutal ko bu àggaleem njàppam baaxul ànd ak ni cër yi ñuy raxas yëpp raxas na ko lu waral am njàppam baaxut mooy dafa royul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kayfiyat am njàppam nam doon jàppe da koo jàppewut da koo sopp ginnaaw sopp nag soppi na ko nag am jàppam duutu baax bu boobaa loolu nag sooy ba nga wax ko ci mboolem jaamu yàlla yi mboolem yàlla yi bépp boo xam ne nit da koo soppi te tey ko na xam ne ak jaamu yàlla am yàqu loolu nag bunt bu am solo la ndax eh, al kayfiya wal wasf muy melokaanu jaamu yàlla yi ak nim dikkee am ci fiq ba xam ko day tax li nit ñi sos lépp ci ay jaamu yàlla yoo xam ne sharia xamu ko day tax nit ki mën koo xam ba mën koo wattandiku moo tax boo jàngee ci sa saxaaba yi da ngay gis lu bëree bëri loo xam ne lu mel noonu lay wone Abdullah ibn Mas'ud ca Kuufa dafa toog benn bis am ku ñëw ne ko ah, kaay xool lii xew ci jàkka ja doy na de mu ne lu mu doon ñu ne ko ñëwal xoolal sa bopp mu ñëw ci jàkka ji xool gis nit ñu def ay géew ab géew fii beneen fële beneen fële benn géew bu nekk nit taxaw ca kaw tiim leen di am ay baat yu mu leen di sant ñu topp ci moom kee nga naan allahu akbar ñu ci gannaaw naan allahu akbar kee nga naan laa ilaha illallah ñu naan allah ilaha illallah ci gannaawam Abdullah ibn Mas'ud waaxul boppam mooy ànd na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ju màgg ja bi mu xoolee seen leen ci jàkka ja mu ne eey ñu geesu seen muy Abdullah ibn Mas'ud ñëpp xam ko xam ne kii mooy seen sëriñ mu ne lii lu mu doon li ngeen di def yéen de yéen a ngi def loo xam ne benn yéen yéen a ne ci njub nun àndandoo yonent bi ñim jàngal nu nekk ci réer wala nun noo nekk jub yéen ngeen nekk ci réer yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi nii bëkk bu la fi jóge yim doon yor sax ci ay njëfandukaay muy ay bagage rappagul yàqugul kon bëkk démb rek la fi jóge diineem soppiku nag ba àgg fii ñooñu ne ko yaa aba abdurrahman ma aradna illa alxayr yow abu abdurrahman nun kat lii def lu baax rek lan ci jublu mu ne leen kam muridin lil xayri lan yudrika mu ne leen bari aana ku bëgg aw yiw waaye du ca àgg ndax jaarewu ko ca yoon wa ca beneen riwaaya ba mu ne leen xayrul hadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li gën ci lu nit ki di gindikoo di ca jaar di jub mooy yoon wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaaroo waaye mun leen a jaar feneen kat ba yóbbu te fekk bokkut ak fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaaroon Saïd ibn Musayyib moom it bokk ci ndongoy saxaaba yu mag yi dafa gis benn waay bi bi ñuy julli suba ñu julli suba ba àggal jant bi fenkagul mu jóg taxaw rek di julli ay rakkaam di sëlmal su jullee rek sëlmal mu ne ko bàyyi li ngay def Saïd ibn Musayyib ne ko bàyyi li ngay def mu ne ko yaa aba muhammad yuadibuni llahu ala salaa ndax ëllëg yàlla daf may mbugal ci ak julli mu ne ko laa walakin yuadibuka ala muxaalafati sunna mu ne ko ndax yàlla daf may mbugal ci julli ëllëg mu ne ko déedéet waaye ci juyoog sunna ci la lay mbugal julli suba ba àggal taxaw di julli sa rakkay naafil la kooku yàlla du la mbugal ci julli gi waaye def gi ngay def lu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daawul def kon bu boobaa ci loolu la lay mbugal moo tax cheikh nasiruddin al albani rahimahullah ci téeram bi ñuy wax al irwa mu ne wa hada min badaa'i ajwibati said ibn musayib rahimahullah nee na lii mi ngi bokk ci tonti said ibn musayib yi gën a yéeme wa huwa silaahun qawiyun ala almubtadia alladina yastaxsinuuna kathiran min albidaa bismi annaha dikrun wa salaatun mu ne ngànnaay lu mag a ngi loo xam ne lu dal la ci kaw waa biddaa ñi nga xam ne dañuy rafetlu ci seen xel dara daal di koy jël mu doon ak jaamu yàlla soo leen waxee ñu ne lii kat tudd yàlla la lii kat julli la te julleeg tudd yàlla nu mel rek baax na déedéet du nu mel rek baax na waaye na ko gën ji bindeef defe woon sallallahu alayhi wa sallam noona moo baax ndax kat dañ ko fi andi woon ngir muy jàngale munoon a julli rek baax na damay julli fukki rakka julli gu ma neex waaye da julli nam doon jullee julli gim ne ñeenti rakka la nga def ko gim ne ñaar la noona gim ne ñett noona la gim ne waxtu wii la ca waxtu woowa nga koy def kon jaamu yàlla gi ginnaaw sañoo cee soppi sañoo cee yokk sañoo cee wàññi zikkar yeeg salaatu ala bi yeeg yépp noonu la bindoo fa sharia noonu la ko gisee moo tax mu teg ci ne ñooñu mooy ñi nga xam ne su leen ahlu sunna bi tontu ci biddaa yooyu nga xam ne dañ koo sos nee na lañ leen di faral di wax mooy yéen da ngeen a déggul diine kuy tudd yàlla nu ngeen ko koy teree nee na fekk ñooña terewuñ ko tudd yàlla terewuñ ko julli waaye ko jooyoog sunna la ñuy tere comme lii Saïd ibnu Musayyib tontu juróomeel ba mooy jamono maanaam jaamu yàlla gi faw mu dëppoog sharia ci jamono ji ko sharia tànnal suñ xëyoon rek benn bis am benn waay boo xam ne dane ah ramadan day buy ñëw day dajeeku tàngoor te waxtu wi nu nekk waxtu sedd la xaaral man ma woor sama weer léegi su ko defee bu weeru koor wi ñëwee ma noppalu ndax googu jaamu yàlla nañ ko nangu ndax woor na weeru koor déedéet ndax tànn luñ ko jooju jamono benn waaye nga leen ah moom kat kaaba gi ginnaaw tukki dem màkka moom ñëpp mënuñu ko ndax day laaj fere yu bare bare bari xaaral rek nu defar fii suñ genn kaaba goo xam ne mel ni gële fas ci yéene la ujaaj yi yéene ñoom itam su ko defee ba tawaaf jotee nu wër ko wala sax nu seet xabrum rek nit ku baax koo xam ne xam na ni ki jaamukatu yàlla la su waxtu jotee rek nu wër ab xabroom yéene ci wër kaaba ga fas ci yéene am tuyaaba ji tol noonu ndax daañu am tuyaaba ji mel noonu déedéet borom bi tabaraka wa taala tànn lu leen loolu kon jamono ji dañ ko war a tànn comme ni nga xamee ne eh, noonu la ko sharia tànne su weeru tabaski jotoon mu ne xaaral ma tabaski man ci bis bu njëkk bi su ko defee bu ëllëgee ginnaaw suñu kër la nekk bu amee ñaari fan diw tabaski bu amee ñetti fan diw tabaski ci weeru tabaski bi te fukkeelu fan ba ak seegut lu mu ci jublu mu ne parce que buñ rayee nun ñëpp ci benn bis bi amaana ndawal gi day yàqoo yu mel noonu kon nan ko rey rek toftale ko su kii reyee ba amee ñaari fan keneen ci rey ndax ñooñu ñëpp danañ am tabaski déedéet ndax ku rey sam tabaski te jullee te julleeguñ sa tabaski baax ñetteel ba kon mooy place juróom-benneel bi mooy place bi bu sharia ak tànnalee jaamu yàlla gi place faawu place boobu rek nga koy mën a tànnal li ñu tuddee li i'tikaaf ci jàkka rek lañ ko mën a defee su nit ki ne woon xaaral na i'tikaaf ci sama kër ndax jàkka ja dafa tànn dafa tàng te amul ay ventilateur te sama kër ventilateur a ngi fi wala climatiseur a ngi fi xaaral na i'tikaaf yi fii seet ab roqam ca kër ga ñu ne dugg na foofa xalwa mu taalub climatiseur am yor alxuraanam di jàng guddi ak bëccëg yéene ca lextikaaf kooka lextikaafu maanaam yoolub lu ne mën na ko am ba mu des yoolub lextikaaf sax wa antum aakifuuna fil masajid la borom bi tabaraka wa taala wax kon lextikaaf ci jàkka rek lañ ko mën a defe mooy ak jaamu yàlla koo xam ne nit ki da koy boole ak woor dogu nekk ci biir jàkka di def lu baax ci xeeti jaamu yàlla yi ci ay fan yoo xam ne la ci gën a néew mooy genn guddi ak genn bëccëg muy vingt quatre heures su ko ëppee it ba tey baax na kon juróom benni mbir yi su fekkee góor góorgóorlu nga ba sa jaamu yàlla dëppoo ci ak la sharia san santaane kon yow mën nañu wax ne yow mii yaa ngi roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi ci sharia tomb bi ci tegu muy adillatu wujubil mutaabaa wa makaanatuha min ad-diin ñaari mbir la boole mooy important bi nga xam ne ak place bu rëy nga xam ne roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko ci diine ak lii firndeel loolu borom bi tabaraka wa taala la ci jëkk dafa wax ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyawma al axira wa dakara allaha katira borom bi nee na am ngeen royukaay bu rafet yéen jullit am ngeen royukaay bu rafet yéen ñan yéen ñi nga xam ne da ngeen a yaakaar ne ëllëg dangeen ngeen seen borom yéen ñi yaakaar ne yowmal xiyaam day ñëw yéen ñii di tudd seen borom kon loolu mooy yéen jullit yi am ngeen royukaay boo xam ne bu rafet la royukaay bu rafet boobu mooy ban mu ne rasulullah kooku mooy yeneen yonentu yàlla bi yonent bi yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp mooy koo xam ne royukaay la maanaam modèle la ci lépp depuis nag ba mu doonee rasulullah la ko tàmbalee ci ba mu doonee yonent yàlla ba kero bis ba mu génnee àdduna lu mu fi def wala mu wax ko fi wala mu comporté woo ko ci wàllu jëf leen te doonut loo xam ne yàlla daa wax ne lii moo ko jagoo xamal ne royukaay la ca loola kon ay waxam ak i jëfam ak i rafet loom ak i ñaaw loom yooyu yëpp da nga ko caa war a roy ay waxam ak i jëfam ak yamuy rafetlu ak yamuy ñaawlu kon kooku uswa mutlaqa la ku dul moom ku ne nag la koy roye faw am luñ ko tënk fu muy yem bu dee nit ku baax dañ naan dañ koy roy ci lu baax li fekk mi ngi roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy roy ci loola waaye bu juumee kat gisu ko ci roy njuumte nag ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën na laa gaar moom rek la borom bi tabaraka wa taala jagleel mu nekk maasuum ci xeet mi nga xam ne lu mu def wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax nee na wax yu la wu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala kon kooku amul ay njuumte moom ku dul moom nag mën ngaa baax ba jéggi dayo sax nag ndax rawee nga doomu aadama lu bari waaye nag ab tomb day ñëw rek ñàkk gaa doon ab yonent daal di feeñ ko nga juum loolu moo tax nag royukaay bi ñuy wax ne mutlaq la nga xam ne lu mu wax ñu jël lu mu def ñu jël gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu royukaay nag amaatul nag ci xeet loolu ci ay jagleem ci la bokk kon laqad kaana lakum fi rasulillahi ñu xam ne même loolu gannaaw bu mu doonee yonent la ko am moom it waaye quarante ans yam dund kat door a doon ab yonent lépp ànd ak nit ci sell la ko yàlla bind moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku baaxoon ay jikko la ñu lu jiitu muy doonub yonent waaye nag la jiitu mu def yonent borom bi tabaraka wa taala def ko mu nekk royukaay ci xeet moo tax néewut laqad kaana lakum fi muhammad mënoon na ne Muhammad seen royukaay bu baax la bu rafet la waaye dane yonentub yàlla bi yonentub yàlla bi seen royukaay bu rafet la kon nga xam ne fam tàmbalee mooy fam doone yonentub yàlla bi foofa la doone royukaay bi ba keroog ñu génne àdduna sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ni dundam gépp leer la dundam gépp ak baax la waaye ñu la gëstuloo ñu la xamloo fi nga war a góor góorloo ba xam la fa xew booy jàng siira nga jànge ko foofa booy jàng ay jëfiinam ak jikkoom ya alayhi salaatu wasalaam nga jànge ko foofa mooy bi mu doone ab yonent ba noppi foofa la importance bu mag bi nag dikkee boo xoolee ci Ibrahim alayhi salaam bi borom bi tabaraka wa di wax xeet wi ne seen royukaay la daa wax ci lan mu ne qad kaana lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qaalu li qawmihim inna buraau minkum wa mima tacbuduuna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum aladaawatu walbaxdaau abadan xatta tuminu billahi waxda kon dane ibrahima yonent bi yàlla ibrahima alayhi salaam royukaay la ci yéen ci tawxid royukaay la ci yéen xeet wi ci tawxid ndax nee na Ibrahima dafa ak ñam àndaloon jàngal leen yar leen dañoo wax seenu nit ne leen nun day set nan wecc ci yéen ak lii ngeen di jaamu te du yàlla weddi nan leen taxawal nan ak noonoo suñ digganteeg yéen akuk mbañeel ba faw xatta tuminu billahi waxda li fee gëmu leen yàlla moom dong del si ci moom wéetal kon loolu Ibrahima royukaay la ci waaye nag boo duggoon ci sharia ay yonent ya ca def ñi dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jataay ya nekk ca biir seeni julleeg seeni koor nam daan tëddee yu mel noona loolu néewuñu la farata la ci yow kon ci ngay roy ci léppam tawxiidam ak julleem ak jaamu yàlla am kooram ajam jikkoom na muy toogee na muy doxee na muy waxee jëf leen teem kooka mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon uswa mutlaqa la boo xam ne mooy sunu royukaay ñoom xeetul islam loolu faaw ñu xam ko ñaareel ba moo di borom bi tabaraka wa taala dafa jël topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu def ko loo xam ne day wane ne nit ki bëgg na yàlla ki ne bëgg na yàlla nuñ koy xamee moo di ne mi ngi topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurun rahim qul waxal yow muhammad waxal ñi la gëm waxal nit ñi nañ dégg nga ne leen in kuntum tuhibbuna allaha su fekkee ne bëgg ngeen yàlla fattabi'uni topp leen kon topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jaamu yàllaam ci ay jikkoom ci pas-pasam ci jëflanteem su ngeen koo defee nee na yuhbibkumullah yàlla dana leen bëgg yéen itam kon wax ji du doy ndekete bëgg naa yàlla wala bëgg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak nam la neexe ci sa façon bopp nga ne nii laa bëgg yàlla ak nii laa bëgg yonent bi loola du am njariñ li fii bëgg yàlla boobu ak bëgg yonent bi teguñu ko ci kaw ni yàlla wax ne noonu lañ koy bëggee noonu mooy lan nii topp leen ma kon yow mi topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci sa julli ci sa woor ci sa pas-pas ci say jikko soo nee damaa bëgg yàlla kenn amul droit ci wet ko waaye kat yow mi ne man ku bëgg yàlla laa ku bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa boo xëyee xëy ci caaxaan boo gontee gont ca boo xëyee xëy ci tooñ boo gontee gont ca kooka da ngaa wax rek ci sa làmmiñ waaye wax amul wala sax yaa ngay sonn ci jaamu yàlla waaye lu sax xel rafetlu rek nga jël boole ci biir ne lu baax du doy kon ba tey da ngaa wax sa làmmiñ waaye sa roy ba tey des ñetteel bi moo di almuslimuuna yowma alqiyamati yanqasimuuna ila qismayn bu ëllëgee jullit yi ñaari xaaj lañuy ñuy doon xaaj bi toppoon yonente bi sallallahu alayhi wa di def lam doon def ci jaamu yàlla di bëgg lam doon bëgg di bañ lam doon bañ rafetal seen i jaamu yàlla jéem ko dëppale ak jaamu yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mooy xaaj bu topp sunna beneen xaaj ba ca des mooy xaaj boo xam ne dafa topp biddaa am xelam rek lay jëf leen lay leen teel lu rafet rek mu jël boole ci diine ji ne loola baax na loolu moo tax ñëw na ci saxiixul buxaari ci xadiisu abdullah ibni mas'ud yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ëllëg bu nit ñi dekkee man maa leen di jiitu ca déeg ba muy déegub kawsar mooy déegu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne déeg bu doy waar la bu neex la boo xam ne ku ca naan duutoo mar ba faw moo dàq lem te ku ca naan duutoo mar nee na déeg booba fa laay jiitu di leen fa xaar nee na xeet yépp buñ génne di tasaaroo ma seen sama xeet di leen woo ñuy ñëw ñu ne noo leen di xamee yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax am na ñu ci bari kat ñu juddu sa gannaaw mu ne ni ma leen di xamee mooy pelle njàpp mi jàpp gi ñu daan jàpp day am leer gu nekk ci seen i jë ak ci seen i loxo ak ci seen i tànk nee na ku ma seen mu mel noonu rek mën a ñëwal ne ba am ñu ma romb ma xam ne ñii ci samay gaay lañ bokk ma ne kaay leen ñëw leen ñëw leen ñu ne ma ah déedéet ñii moom jëmuñu foofu puus leen ñu jëm fële ànd ak ni ñu daan jàpp ak julli lañ nee na ma ne leen asxaab yi asxaab yi ñii kat ci samay àndandoo lañ bokk ñii ne ma laa tadri ma ahdasu baadak da ngaa xamul li ñu sos sa gannaaw ñii da ngaa xamul li ñu sos sa gannaaw moo tax nga defal ni ci ñu ànd ak yow bokk mais su boobaa yonente bi alayhi salaatu wasalaam day wax ne soxkan soxkan kon day nañ sori nañ sori maanaam buñ jaxasoo ci sama ñooñ ndax ñu bañ cee jaawaloo kon ay jullit a ngi am doon ay jullit di julli di jàpp di woor di sonn ci ay jaamu yàlla waaye ngir ñàkk koo tënk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci pexem seytaane tax na bu ëllëgee loolee di biddaa dox seen diggante ak wuy si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci déngaleer boobee nga xam ne kenn ku nekk sox nga soxla ngaa ñëw taxaw ca suufu drapeau ba naan ci déggam ba yàlla na yàlla may loola nun ñëpp ñeenteel ba moo di ne gépp jaamu yàlla bu mu mën a doon ngir ñi nangu ko dafa am ñaari charte yoo xam ne mënu ñàkk benn bi mooy al mu sell mooy na yàlla kese kese tax bu nit tax na yàlla tax bu nit tax ba ngay julli sa borom moo la tax julli waaye julli loo doomu aadama yi ba ngay woor noona ba ngay sàkk saraf noona wax dëgg yàlla sàkk sarax soo xam ne da koy yéeg bu dee ca këram nit ñi mu fés da ca mën a sawar dana mën a bari waaye bu làqoo doo ca sawar du bari kooku suñu waxee ne yàlla kefe tax suñ ne yàlla rek rek a tax wax dëgg yàlla wax la ci teguwul palaasam ki nga xam ne yàllaa ko tax bi def la nëbbu ak la feeñ ñoo yam ci moom wala la feeñ sax la gën a ittewoo duñ ci déggee nag ne feeñal sarax baaxul bu mu koy feeñal feeñal sarax baax na wa in tubdu sadaqaati fa ni'ma hiya su fekkee feeñal ngeen ko loolu lu baax la sarax yi ndax mën ngaa yëkkati sarax feeñal ko keneen roy ci keneen royaat ci keneen royaat ci mu doon ak jaamu yàlla waaye nag nee na su ngeen ko nëbbee nag moo gën moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci juróom-ñaar ñi nga xam ne ëllëg dañuy am ker bis boo xam ne nit ñi soxla nañ ker lool ndax keruk arasu suñu borom tabaraka wa taala foofu ña seelu rek ñoo mucc ca tàngooru metti ma ca bis booba daf ne juróom-ñaari ñu bokk na ci koo xam ne buy sàkk sarax bu koy joxe loxo ndeyjoor bi sax day nëbbutu loxo càmmoñ bi ngir mën koo joxe loolu dakkental la ci ne kii def jaamu yàlla gu mel noonu daf koy nëbb ba nit ñi duñ ko yëg ndax ca lay gën a selle maanaam day fekk la muy daw mooy njistal lay daw dañu nag niñ koy faral di waxe mooy xam ndax yàllaa tax ngay def wala nit ñee tax ngay def am na balance koo xam ne mën nga ko ci peser sa bopp kenn ku ne am nga balance bu dana su rakkaa ya ngay julli yow soo demee ba wéet ci sa néeg di julli ñaari rakkaay guddi fay sam làmp kenn nekk ko ku dul yow sa boroom xoolal sa ñaari rakkaay yooyu ngay julli ak ñaari rakkaay yi nga xam ne danga dugg ci jàkka ji mbooloo mu bare bare bari féete la gannaaw nga taxaw di ko julli ñi lay xool ñaar yooyu bu ci gën a rafet boroom xam-xam yi gëstu ci wàllu sellal nee nañ su fekkee ñooyam ñoom ñaar day yaa ngi ci tawfiq su fekkee ne nag la nëbbu moo gën a baax moo gën a rafet moo gën a sell kon de yow day ca gaayu mag ya nag ca nga bokk waaye su fekkee ni li ci bitti moo gën a rafet nag la ca biir nee nañ ko ku gaawal seytaane nga lay gañe ndax njistal ngay def nit ñee tax ngay jaamu yàlla bu boobaa kon tomb bu jëkk bi ngir ñi nangu jaamu yàlla gi mooy na sell na yàlla dong mu tax ñaari na tomb ko nag mooy lii nuy wax mooy topp yonente bi sallallahu alayhi wa kon kooku moom benn tomb la bu lay jox importance mu taabaa moo tax wax ne jëf ji bu sellee te teguwul ci sunna it diisu ko nangu diisu ko nangu su tegoo ci sunna te sellu it diisu ko nangu maanaam sell na mooy yàllaa tax muy def waaye bi mu dikkee nag nu ko neex rek la ko defe jéemu ta xam ne yonente bi doon jullee pour mu jullee noonu jéemu a xam nu mu doon def ay jaamu yàlla am ngir mu defee ko noona waaye dafa ñëw rek julli julleem yàlla nag a tax mu koy def waaye nee na diisu ko nangu lu tax mooy royul yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ko dëppale woon ak roy yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba ku ko gis xam ne kii lay salaatu nabi lay julli waaye la ca xol ba mooy mbooloo mi ko xol a tax mu julli suñ ko gisul woon du julli julli gu mel nii kooku ba tey ak julleem gisu ko nangu gisu ko nangu nag tekkiwul ne wérut maanaam julli gi mën naa wér waaye dañ ko dul nangu du ca am tuyaab taqale lool nag lu am solo la ndax julli gi wér julli gi wér su nit jullee ci gannaaw ko ko julli ak julleem mën naa wér moo tax nit dana julli ci gannaaw maamoom ji ñu nangu julleem imaam ji ñu bañ a nangu julleem lu tax mooy maamoom ji sàppe ya daje na ci moom yàlla tax mu julli roy na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nangul ko julleem imaam roy na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci julleem waaye am na lu ne ca biir nag loo xam ne moo tax mu julli su boobaa julleem wér na waaye nanguwuñ ko moo tax borom xam-xam usul yi dañuy wax ne la talaasuma bayna sixati wal qabul diggante jaamu yàlla gi wér na ak jaamu yàlla gi nangu nañ ko foofu nee na am na distance bu mag a mag a mag a mag am na distance bu mag ci diggante ñu ne jaamu yàlla gi wér na ak jaamu yàlla gi nangu nañ ko moo tax jullit bi bokk na ci ay ñaanam day ñaan jaamu yàlla yi yi muy def borom bi tabaraka wa taala nangul ko gannaaw bu mu góorgóorlu ba noppi day ñaan yàlla nangul ko juróomeelu yi wane importance boobu ak di wane dalili roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu rëyee moo di ne texe texe ci boppam nga xam ne moom la ñëpp bëgg ëllëg ak fii ci àdduna sax borom bi tabaraka wa taala daf ko wékki ci kaw roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne fa alladina amanu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattabau nuur alladi unzila maahu ulaika hum almuflixuun mu tudd ay tomb yu am solo fa alladina amanu bihi la ci kaw maanaam gëm ko gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ dégg bokk nag ci gëm yonente bi ne mooy rek nangu ne ab yonente la loolu dëgg la ca la tàmbalee na waaye yëmut foofa bokk na ci gëm ko mooy nga gëm ne ab yonente la boo xam ne jot li na diine ju mat sëkk yoo xam ne borom bi tabaraka wa moo ko wàcce ci moom digal ko mu jot li ko xeet wi jàngal leen ko nëbbu leen ci dara ba borom bi tabaraka wa al wàcce alquran ko loolu jox ko diplôme ne ko alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina diine ji mu seedeel ko ne ko mat na sëkk nag bés na tey aaja wootul ku ci yokk aaja wootul ku jéem a góorgóorlu di andi loo xam ne saxul woon ci biir diine ji kon bokk na ci al imaanu bihi nga gëm ne moom mii doon gi mu doonub yonent am na yeneen yu ca tegu mooy daa doonub yonent ba noppi andi diine joo xam ne dañ ko ko jot li loo mu jot li ko ba mu mat sëkk dara manqué wu ci loolu da lay wane kon nëbbul dara ci xam-xam am yonent bi alayhi salaatu wasalaam mun ta doon buy nëbb moo tax nag dem ba mujjug jamono ay jaamu yàlla di feeñ yu bokk ak yaa amoon bu njëkk loolu mun ta nekk ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna foofu lañ tëjee buntub santaane ay jaamu yàlla yu bees moo tax inna alladina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda min badi ma bayannahu linnaasi fi lkitabi ulaika yalanuhum allah wa yalanuhum allaainun borom bi tabaraka wa taala nee na ñii nëbbu li yàlla wàcce ci ñoom ci ak njub akuk mbaax gannaaw boo xam ne yàlla wàcce na ko biral ko ba mu leer nee na ñooñu yàlla dana leen rëbb mboolem ñuy rëbbee ci malaaka yi nit ñu baax ña danañ rëbb ñooñu kon yonente bi alayhi salaatu ci ñooñu loolu moo tax boroom xam-xam yi ñuy wax ne sos ci diine dafa rëy lool ndax dafa làmboo indi lu bees lu yonent bi xamul moo ci saxaabaam te kon bu fekkee saxal nga ne ci diine lislaam la bokk te yonent bi ci saxaabaam daawuñu jaamu bi la nga wax moo xam da nga koo wax ci saw yi wala da nga koo wax ci sa jëf moo di ne lii yonent bi da koo nëbboon xam na ko waaye da koo nëbboon wala nga ne kon da koo xamul woon te kooku moom it meneen musiba la mu rëy a rëy a rëy moo tax diine ji kenn mënu ci yokk dara gannaaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon gëm nga ne moom lépp lu ñu wàccee ci moom jottali na amut lenn lu ñu wàccee ci moom te mu nëbb ko te it sañu la waxal yàlla lu mu waxul kon lu jóge ci moom lu nekkit nag ci diine ji la loolu ci sa ngëm ci lay bokk ndax yonente bi sañu te waxal yàlla lu mu waxul borom bi tabaraka wa taala wax ju tar sax la wax foofu mu ne walaw nee na bu fekkoon ne waxal nanu moom yonent bi lay wax ak màggaayam ak fam toll yàlla mu ne bu fekkoon ne waxal na ma waxal nanu maanaam waxal na borom bi tabaraka wa lenn lenn ci ay wax yoo xam ne waxu ko moom yàlla nee na la axas naa minhu bil yamin nee kon danañ ko téye ak kattan maanaam bu doon danga koy wax ci ci ci wala waxinu wala fu mën a leer mooy xoj téye nit ka ba nga xam ne du mën a noyyi la naa minhu bil yamin loolu lu rëy rëy la digganteem ak boroomam mu ne tumma la qataana minhu lwatiin kon danaa dagg buumu baatam bi la ilaha illallah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su borom bi tabaraka wa taala demee bay wax ne su waxoon lenn loo xam ne daf ma ko waxal te waxuma ko kon danaa ko téye téye bu dëgër danaa dagg buumu baatam fama minkum min ahadin anhu xaajisiin te amul kenn ci yéen ku mën a dox suma digganteeg moom bu boobaa kon xam nga ne waxal sunu borom tabaraka wa taala lu mu waxut lu rëy la su fekkee ki gën a tedd ci doomu aadama yi mas a bind moom la yàlla di wax ci moom lu mel nii kon su jeneen doomu aadama taxawee nu mu ko neexee rek di wax na yàlla nee na kum neex sax léeg-léeg nga dégg ko ne gis naa yàlla nee na ma nangam wala sama kilifa gis na yàlla wax naa moom nee na ko nangam kilifa ga ne ko nangam waxiin yu yomb yooyu ku xool li alquran di waxante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bunt bi nga xam ne fa nit ña toll ak fa alquran toll borom bi tabaraka wa taala comme tolloolu diine ak mbir yi nga xam ne soree na lool mbiru ñaareel ba ci sa ngëm googu ngir mu mat moo di an yusallima li xukmi rasuli sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ne baax na nga nangu ne baax na lu mu atte nga nangu ne lii mooy atte bu maandu bi dara ci ndëng nekku ci dara ci tooñaange nekku ci loolu su amul ngëm gi amul fala wa rabbika la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajiduu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima borom bi tabaraka wa taala nee na duñ mën a gëm mukk ñoom jullit yi duñ mën a gëm gëm gu mat wala gu baax sax li feeñu seeni mbir dañ la koy atteloo nga atte ko ci kaw soo fi nekkee teew soo fi nekkul ñu atteloo ko sa sunna ak alquran su ko defee su atte boobu ñëwee summa la yajidu fii anfusihim xarajan mimma qadayt lu ñu yëg ci seen xol benn naqar ci atte boo xam ne yonente bi alayhi salaatu moo ko atte maanaam lam ne lii moo baax suñ xasee yëg ne lii la yonente bi ne moo baax dañ cee yëg féexu fol xol akub d'accord gu mat sëkk duñ ca am benn naqar wala benn métit boo xam ne dañ naan suñ ko atte woon nee lay gën a baax wala déet donte sax atte boobu daa dikk dal ci seen kaw kon it bu tee dañ koy ànd ak mbégte dañ koy nangu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax moo tax borom bi ne wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim wa man yaasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina nee na jullit bu góor wala bu jigéen sañut yàlla atte wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam atte benn atte maanaam digalee benn ndigal wala mu tere benn tere ba noppi muy tànn nag nu mu ko neexee tànn sa bu la neex nga xam ne da xalaat rek xool ne ah lii de moo gën a woyof kon naa ko tànn lii de moo gën a dëppoog jamono ji naa ko tànn lii de moo gën a modéré moo gën a dëppook modernité nga ne naa ko tànn ngir loolu déedéet na ko yàlla santaanee ku yonentam noonu rek nga ko sañ a jëfe lam tere ko teree rek nga ko bàyyi waaye sañoo jël lam tere nga ne dama koy ci wëlbati ko ndax mu dëppoo jamono ji ma lees koo jëfandikoo déedéet ñetteelu mbir bi mooy mu gëm ne atteb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy atteb yàlla mooy atteb yàlla waaye doonut loo xam ne yonent bi mooy farlul boppam di indi ay atte waaye lu ko borom bi tabaraka wa taala jox la moo tax mu joxe ko moo tax borom bi tabaraka wa taala ne inna anzalna ilayka alkitaba bilxaqi li taxkuma bayna annaasi bima araka allah wala takun lil xaainina xasima borom bi tabaraka wa ko dama wàcce ci yow bi ngir nga mën a attee li yàlla wàcce ci yow li yàlla wàcce ci yow wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuha loolu rek doy na sëkk mooy yonente bi alayhi salatu la ko jëlee ñaareelu lim tudd ci aaya jooju nga xam ne lu am solo la foofu mu ne fa alladina amanu bii wa azzaruuhu wa nasaruuhu wa azzaruuhu maanaam nusratu nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy jàppale ko ci diineem bi ci melokaan yooyu ci la bokk gëm ko jàppale ko ci diine bi mooy def lim digle tere itam lim bari ba lim lim bàyyi lim tere sori lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla la boo xam ne moom santaane wu ko nekke noonu défendre diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëmmam ja alayhi salaatu wasalaam su fekkee ab dof bu rakkaaju jóg na di wax ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu mu wër te wax nga bañ a toog ferenklaayu sa loxoy kese waaye nga tontu ko ca sa kem kattan fa sa xam-xam toll ak fa sa doole toll xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yu mujj gis ngeen nooni lislaam yi dem ba tàggoog seen leen lu nekk da nga dégg ñu wax ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir euh, bëgg a ñaawal ab daram wala ñu di ko wax ci lislaam wala ñu di ko wax ci alquranul karim dégg ngeen dessin yu bon yi fa tubaab yi doon def ci at yu yàggul rek ci gannaaw loolu jeexul ba léegi ñi ngi continuer di bind di def yu mel ne yañ doon def ñi ngi def dessin yu mel ne yañ doon def di génne sax ay film yoo xam ne ci jëm yonente bi alayhi salaatu wasalaam lañ koy génne di wax wax ju ñaaw di ko wax ci alquran di génne kaamilu alquran di ko photo di ko jox ay mbaam ñu di ko lekk ñuy foto loolu di ko génne di ko tàbbal ci internet bi ak ci di ko def ay film muy génne loolu lépp ñàkk sago moo ko waral ndax gis nañ ne lislaam mi ngi tasaaroo ànd ak xeex bépp biñ koy xeex teewul mi ngi tasaaroo ci noo xam ne ñoom foogee wuñ ko woon noonu te loolu ñuy def dañoo jàpp ne da koy delloo gannaaw waaye da koy jëmale kanam ndax dañuy wax ne leerug lislaam dafa mel ne dafa mel ne ab gaz boo xam ne dañ koo tëj soo ubbi su dara xasi ubbi ko bay foset rek soo ko dee jéem a yëngal wala ngay def dara day gën a génn rek di dem kon noonu la lislaam baaxoo xeex ba daf koy tasaare waaye nag ànd ak loolu lépp it jullit yi waruñoo fas te seeni loxo gis ngeen li ko Danemark defoon bi jullit yi commencé dagg seen marchandise yi li ko daanu ci ay société kenn xamul nu mu toll ci biir loolu kon jullit yi am nañ ay pexe yoo xam ne euh, violence bokku ca tooñ bokku ca waaye nag défendre seen yonent ci seen xam-xam ak ci seenu doxin ak seen maniin ak ni leen ko lislaam santaane loolu jamono yi nekk mën nañ ko te jullit bu nekk itam mën nga ko ànd ak loolu lislaam ñu xam ne dafa yor force boppam boo xam ne moo koy yëngal muy dem maanaam su doon effort yu jullit yi tey effort jullit yi ma gis tey bu fekkoon ne mooy tasaare lislaam kon ba tey lislaam moom ba watul fay na sax jullit yi nag wax dëgg yàlla li wér te wér mooy li ëpp ci ñoom defatuñ dara maanaam yëngatootuñ yëngu bi lislaam yayoo moo tax booy jàng salafu saaleh di jàng saxaaba yi seen effort ak li ñu doon def ci lislaam da ngay mujj mel ni koo xam ne ay léeb ngay jàng wala sax ay génn danga naan ñii day mel ne dañoo doonoon yeneen nit ñu bokkul ak noonu kon jullit yi defatuñ dara waaye lislaam ci boppam moo yor quwa zaatiya ak indifaa zaati boo xam ne moo koy jeñal boppam muy dem moo yor force boppam boo xam ne day tasaaroo te kenn mënu ci dara benn bés ci jamono yi nga xam ne ne waa Danemark ñu ngi def yi ñaaw yooyu am na benn conférence boo xam ne ci dëkku kaw lañ ko doon def bu boo xam ne wax dëgg yàlla foofa digganteem ak courant fa courant am ëpp na fukki kilomètre ak juróom lenn lu nuroo xeet lu doomu aadama mën a sukkandikoo ci moyens yi ñuy jëfandikoo wax dëgg yàlla nekk fa jàpp naa ne su fekkee am nañ ay rajo yi ñuy dégloo xëy na rajo yi am batterie wala yu mel noonu bi ñu waxtaanee ba waxtaanoo jeex euh, soxna su mag soo xam ne màggat la mu sukkandiku ci bant ne dafa bëgg a wax soxna su jigéen bi ko ña dend ak moom ne ko waxal mu wax ñi jot li mu wax daf ne waaw lu tax ngeen daje fii waxtaan waxtaan ba waxtaan wi jeex te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi koy saaga di ko xas te waxu leen ci dara ma seetlu loolu ma ne allahu akbar l'islam ci boppam mooy demal boppam ku ma ne woon xabaar yi loolu di xew ci Danemark mi ngi agsi ci soxna soo xam ne fii la toll ci ci âge ay atam fii la toll nga xam ne yeneen la war di xalaat ñaareel bi fi mu nekk ay moyens yi ñuy seetaane ay rajo ci télévision daanaka nekkul waaye teewul xalaat boobu agsi ci soxna su màgget si ak fii mu toll ba loolu naqari ko ba muy jël kàddu ci mbooloo mi ba di ko jot li kooku daf ni jox ne lislaam ci boppam quwa zaatiya la yor maanaam jëmmi diine la juy demal boppam gàncax la gu sax di lawal boppam di dem te dara mun koo dagg xol bu nekk àgg na ca ruq bu nekk àgg na ca fenn fu nekk ma nga fa ku koy jiima taxawal yow yaay taxaw waaye taxaw kon lislaam noonu la mel waaye nag jullit bi na def kem kàttanam ngir jàppale lislaam jooju mu tasaaroo ñetteel ba mooy taqdimu mahabbatihi ala mahabbati kulli mahbub moo di jiital cofeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp loo xam ne lu ñuy bëgg la loolu nag mooy li gën a dëgëral sa gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa gëm ko ak sa cofeel ko daa war a àgg ci li ñuy bëgg lu nekk moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo la koy gënal moo lay gënal sa bakkan gënal la sa alal gënal la say doom gënal la mboolem lu yàlla ma sa bind ci doomu aadama loolu mooy tax sa ngëm mën a wér moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xadiisu Buxaari Abu Hurayra moo ñu ko nettali nee na dafa ne fa walladi nafsi bi yadi giñ naa ci ki nga xam ne moo yore sama bakkan yonente bi mooy wax yàlla yore laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nnaasi ajmain kenn ci yéen du gëm lu dul ne man maa ko gënal baayam maa ko gënal doomam maa ko gënal mboolem nit ñi kon ngëm gi ngir mu mat loolu day mat mbëggeel googu nag doonul mbëggeel boo xam ne dañ ko wax ci làmmiñ waaye mbëggeel bu ñuy jëf la mbëggeelu def effort ngir xam yonente boobu mooy kan loolu moo ci jiitu xam loolu mooy xam mooy kan xam mooy kan siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko war a jàng xamu dundam xamu doxiinam dugal ko ci biir école yi jàng ko dugal ko ci biir daara yi ak xalaqaat yi jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam ko waaye weesu nag jamono joo xam ne dañuy jagleel benn bés ci at mi ne yonente bi lañ ciy jàng siiraam bis bu ne dañ ko war a jàng dafa war a ne ci xol yi daa war a ne ci école yi nekk ci daara yi xam ci moom jéggi na loolu kon faw loolu ñu bàyyi ko xel ci dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu buñ ko jàngee ba xam ko ba àggal nag jël ko bu nekk suñ modèle suñ royukaay bi nga xam ne moom la ñuy roy ci lépp loo xam ne lu ñuy def la kon suñ nee bëgg nañ ko bëggeel googu dana am lu ko firndeel dana am mandarga mu ko joxee mu wane ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam ku ko bëgg lan waaye nag bëgg ko ba noppi yooyoog sunnaam yooyoog lam doon def di ko wax rek suñuy làmmiñ di ko feeñal ci yeneeni anam yoo xam ne bokk ak yi ko sharia santaane loolu bokkul ak bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxaat na ci beneen xadiis wane ne ngëm yàlla dafa am cax ko dafa am neexiit neexiit woowu nee na ki koy mos mooy koo xam ne ñett yii daje na ci moom ba ci jëkk nee na an yakuna allahu wa rasuluhu ahaba ilayhi mimma siwahuma nee na yàllaa ko yonentam moo koy gënal lu dul ñoom ñaar yàllaa ko yonentam moo koy gënal lu dul ñoom ñaar kon seen digal bu xasee teew xoolatul leneen ndigal wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah ak ku muy bëgg lay tax mu di ko bëgg ngir yàlla tax wa an yakraha an yauda fi lkufri kama yakrahu an yuqdaba fi nnaar mu bañ a delluwaat ci kéefar ni muy bañee ku ko jël tàbbal ko ci sawara fii ci àdduna ndax xam na ni kéefar sawara la ko yóbbu nee na gannaaw bi nga xam ne yàlla gindi ne ko ba mu ñëw ci njub dugg ci lislaam dugg ci sunna dana sib dana bañ lu juuyoo ak loolu ni muy bañee ku ko fekk këram fab ko ne da koy tàbbal ci sib boo xam ne sawara moo fa nekk kon bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bu mag a mag la ci euh, gëm ko bëgg ko yit ni ñu koy defee mooy def ndigalam bàyyi tereem say jaamu yàlla nga tënk ko ci ay jaamu yàlla loolu mooy topp li nga xam ne moom la indi moo tax dafa wax ci benn xadis boo xam ne Buxaari moo ko génne ba tey mu ne sama xeet yépp dañuy dugg àjjana ba mu des ku bañ ñu ne ah, ndax am na kenn kuy bañ mu ne oho kay ku ma topp dugg àjjana waaye ku ma moy nag ku toppul ku ma toppul nee na kooku mooy ka bañ mooy ka lànk dugg àjjana kon loolu lu mat a bàyyi xel la jeexeeti topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam effet yi nga xam ne moom lay am ci dundu doomu aadama kenn ku ne ci noonu su góorgóorloo fexe ba pas-pasam mu tënk ko ci pas-pasu yonent bi sallallahu alayhi wa ay jaamu yàlla am noonu ay jikkoom noonu am na ay meññeet yu mag a mag a mag yoo xam ne moom loolu da ko koy jariñ waaye su ko société bi defee it am nay njëriñ yu mag a mag a mag yoo xam ne day dellu ci société bi bi njëkk ci liy jëriñ nit ki nga xam ne tënk na boppam ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo di al istiqamatu la koy njëkk a indi jub al istiqaama nag mooy mooy sax ci yoonu njub nit yi nga xam ne tënkuwuñ ci sunna dañuy làmbatu ku tënkuwul ci sunna ku ne da ngay làmbatu yoonu mucc nag doo ko gis ba noppi di làmbatu fu ma war a jëm moo tax al imam malik day wax ne sunnatu safinatu nuux nee na sunna dafa mel ne gaalu yonent yàlla nuux ga ba mu dikkee ña ca nangu war a war ñoo mucc ña lankoon bañ dugg ci gaal ga ñëpp dañoo làmb al imam malik nee na sunna noonu la mel borom bi tabaraka wa taala nee na afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim nee na kii làmbatu jiital boppam rek di dem te xamut fu mu jëm boo ko comparé ki nga xam ne dañ koo xottil yoon wu jub mu jaar ca di dox ñaar ñooñu mu ne kan moo ci gën a jub la chaque ne ki ñu xottil aw yoon ba mu leer mu war caa jaar di dox kooku moo gën a jub te kooku mooy ci topp yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari njëriñ yim ko xam ne moom lay jëriñ nit ki moo di li borom bi wax ne wa in tutiuhu tahtadu moo tax loolu mooy borom xam-xam yi dañuy wax ne tagg wi gën a rëy ci tagg wu borom bi tabaraka wa taala tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy loolu mooy lim ne wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee da ngeen jub amma lam ko wax fale ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yaa ngi yore jikko yu màgg loola aw tagg la waaye boo ko comparé gi bii ne bii moo gën a rëy ndax wi yëmatul ci jikko boppam moom yonente bi alayhi salaam wasalaam waaye jikko yaa ngi ci biir jaamu yàlla yaa ngi ci biir melokaanu lépp a ngi ci biir su ngeen ko toppee daal jub kon daal kooku mooy modèle bi nga xam ne su ngeen ko toppee jub wa in tutiuhu tahtadoo kon yow jullit bi yow mi topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp ci sunnaam bokk na ci njariñ yi ngay jëriñoo kon al hidayatu taamma mooy gindiku mucc nga ci ak lëndam mucc nga ci réer mucc nga ci jaaxle ndax lépp leer na ci sa kanam li la war rek mooy jàngal dund kooku topp ko nam doon def nga di ko def lam doon bàyyi nga di ko bàyyi ñetteel ba nag moo di al xurriyatu al xaqiqiya wal istidlalu saxiix topp sunna topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci njariñ yi lay jëriñ mooy liberté bi l'islam nangu da nga koy am liberté bi l'islam nangu mooy ban mooy kenn amatut sultaanub noteel ci sa jaamu kenn amatu ko ci yow doomu aadama amatu ko ci yow ki ngay jaamu yaag doomu aadama yépp kenn kee muy sunu borom tabaraka wa taala ki ngay roy yaag jullit yépp kenn kee mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga lii ba moo tax ku kawe kaag ku suufe kaag ka nit ñi jàpp ne daa kawe kañ jàpp ne daa suufe ka a kawe ci doomu aadama ak kañ jàpp ne moo ci gën a suufe boo ñëwee ci jàkka ji ñoom ñaar mën nañoo bokk benn sàppe di julli bu yàggul am na benn entraîneur football bu tuub ci Arabie Saoudite yaakaar naa ne matagul fukki fan benn équipe lay lay la yore foofa waxtu julli daa jot mu gis joueur yépp dajaloo ci terrain bi di julli mu xool ci benn joueur boo xam ne ku siiw la koo xam ne xam ngeen joueur yi siiw yéeg li ñu yor ci popularité ak nit ñi dañ leen di bëggeek coow lu bari la nee na mu xool ci joueur boobu ak kenn ci ñi doon bale ci stade bi ñoom ñaar ñi bokk taxaw seeni tànk sësaloo ci biir julli ñi julli seen julli ba mu jeex kenn waxul dara dara yënguwul ak muy xalaat joueur boobu bu jaaree ci mbedd mi ni ko mbooloo mi toppee gi mel noonu mu ne daal kon lii diine la joo xam ne kon daa yemale ñëpp ne dafa yemale ñëpp kay ku ñuul ak ku weex ak ku xonq ak ku wert ak kañ ne kawe naag kañ ne suufe naag suñ xasee summi seen dàll yi ci buntu jàkk ja summi waale nañ seen daraja ya foofa dugg ci biir jàkka ji suñ jullee ba noppi suñ génne nag bu ñuy solaat seen i dàll nag ku ne solaale sa daraja ñu génn nag kenn ku ne nag ñii de maay ministère ba ci ne man maay léeg ci ne nangam ci ne man balekat laa waaye bu waxtu summi dàll yi rek jotee ñëpp summi seen dàll kon diine ju mel noonu liberté boobu li koy joxe sun na rek moo ko mën mais lu dul loolu yeneen doomu aadama dana ñëw jaare la loo xam ne dana fexe ba doon leneen ci sa kaw mën naa dem sax bay yàlla faf ci sa kaw la yàlla yeyoo woon mu faf yeyoo ko ci sa kaw tàggat la nga di ko xëyal di ko gontal faf bàyyi jaamu yàlla nag far loolu lépp mën naa am nit ñi sax ñu ngi ci teg seeni bët kon liberté bi nga xam ne moom la sharia joxe muy liberté wakkiirlu ci sa boroom wóolu sa boroom di jaamu sa boroom moom dong di ko wéetal moom dong bépp sultaan bu mën a doon sultaanu taaxuut ak bu mu mën a doon bu jóge ci doomu aadama bu ñëwee bëgg a tege ci sa kaw nga lànk ko loolu diine ji ko mën mooy diine lislaam te li ko mën ci biir diine lislaam ji mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi maanaa tënku ci sunna moo tax borom bi tabaraka wa taala ne daraba laahu masalan rajulan fihi shurakaau mutashaakisuuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyaani masala alhamdulillahi bal aktaruhum laa yaalamuun borom bi nee na yàlla ngi joxe misaal exemple ci benn waay boo xam ne ab jaam la ñu bari bokk ko moom ko ak benn waay boo xam ne kenn rek kay ab sangam maanaam benn jaam boo xam ne kenn ko moom kee nga xam ne lu ma ñett ko moom ñoo ko bokk wala ñeent wala juróom bu ñu xëyee kii ne ko ci nangam laa la yónni kii ne ko ci nangam kii ne ko ci nangam kii ne ko ci nangam mu nekk seen diggante du xam fan lay tàmbale ak fan lay yem kan lay njëkk a topp kan lay mujj a topp mu ne kooku ndax moo ëpp jàmm wala ki nga xam ne kenn rek a ko yilif bu xëyee ne ko demal defali ma nangam mu dem defi ko bu wàcc jotee mu wàcc ci toog ku yorum xel xel ku nekk xam nga ne ki kenn di sant muy defi kooku moo ëpp jàmm koo xam ne fukk wala juróom ñooy xëy di ko sant mu bëgg leen a fajal seeni aaji ñoom ñëpp misaal moomu borom bi tabaraka wa taala mi ngi ko joxe misaalum kuy jaamu yàlla moom dong mu wéetal ko ak koo xam ne wéetalut yàlla waaye ak jaamoom nit ñi dañ koo séddoo kenn ku nekk am ci moom cër boo xam ne mënu koo bañ a def su ko defee kooka day sonn boole ko ak di mooy yàlla kii nag day noppalu boole ko ak di topp yàlla kon ñoom ñaar méngoowuñ ñeenteelu tomb bi nga xam ne jullit bi topp yonent bi dana ko jariñu moo di nag texe nag ci tabbi ajjana mucc ci sawara te loolu nun ñëpp kat moo nu taxam kër kër yi lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon euh, ba ko euh, arabi ba muy paysan ba kaw kaw ba ba mu dikkee ne ko man de li ma dégg ngeen di di ko wax yaag moas bu ngeen jullee ba sëlmal yu bari yi ngeen di wax rek di doom doom yi man loolu mënumaa mokkal lépp man daal dama naan yàlla may ma àjjana rek ma ci sawar yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xawlaha nu dan jin sun doom doom jooju ngay dégg yëpp génnul ñaar yooyu ñaar yooyu muy may ma àjjana musulma ci sawar mu ne ko laa axsinu dandanataka wa dandanata Muaz sa doom doom ji ak doom doom yi Muaz mokkalu ma xam nga ñi jóge ca kaw moom seen i mbir leen teewe ci seenum xol rek noonu lañ koy waxe amuñu amuñu amuñu ay tappale li ñuy tuddee diplomatie jamono ji nga ne mooy ay tappale loolu amuñu ko lenn lu ne nam nam nikkee ci ñoom rek lañ koy wax ñu ne ngay wax yaag Muaz mënuñu ko loolu dafa bari mu ne ko looy wax nag mu ne damay wax yàlla may ma àjjana te musal ma ci sawara ne ko xawlahaanu dantin sun doom doom ji génnut loolu borom bi tabaraka wa taala kenn ku ne xam na ne kon am àjjana ak mucc ci sawara moo waral kër kër yëpp li ñuy def lépp moo tax borom bi ne wa man yuti illaha wa rasulahu yudxilu jannatin tajri min taxtiha al anhar wa man yatawalla yuazibhu adaban alima nee na ku topp yàlla ku yonentam dana ko dugal ay ajjana yoo xam ne dex yaa ngay yool ca suuf nee na ku won gannaaw nag topp yàlla ku yonentam yu'adhibhu 'adaban alima nee na dana ko mbugal mbugal mu metti kon jaamu yàlla bi ngir nga mën a mucc ci mbugal mu metti moom yi te am àjjana jooji dex ya di daw ca suufam toppal yàlla ku yonentam jéemal a jàng ba xam sunna nga topp ci kon loolu mooy lenn ci njariñ yi nga xam ne topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko jariñ jullit bi société bi nag moom it am na ay njariñ yoo xam ne su société bi àndee nekk société bi sunna maanaam bi topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na njariñ yuy del ci société bi ba ca jëkk nooy quwatu tamaasuk wa mataanatu tarabuti wal waxda seenu jàppaloo day dëgër su fekkee ñoo bokk benn luñ jàpp muy roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te it dañuy bennoo ci biir loolu su loolu amul nag dañuy tàqale ko ndax royukaay ngir nit ñi doon benn faaw seen royukaay doon benn loolu julli di faaw ñu daje ñoom seen bopp waxtaan nag seen waxtaanu biir kër boo xam ne yoonu kenn nekku ci ne gaa yi kaay leen waxtaan nag sun bàyyi ñoom ak sun maam ñoom kat dañoo ñëwoon doon jiima góorgóorlu doon tasaare diine ji sun demee ba jëmm jamono ma taxaw di woote jëmi ci saa kër baay kee taxaw woote jëme ci kër baayam kee woote jëme ci kër baayam te kenn ku nekk am kër baay te ku sañoon ku nekk kër baay mooy kawe yi ci des topp ko suñ dellusee nag ba agsiwaat foofu la muy jur mooy na danañ ko teg fee loolu mooy li wér te suñ ko tegee fële royatul yonente bi sallallahu alayhi wa li muy jur mooy ay pàcc-pàcc kenn ku nekk ne diine ji fii dong la nekk nekkul feneen jamono yoo xamee ne dem nañ nag ba yëg ne lii nu nekk njuumte la ndax doyadi nan suufe nan taqalikoo nan kenn ku ne yaa ngi wax ci sa morom lu jaaduwut nu bëgg a delluwaat fenn doo nga leen mën a dellu mu benn leen mënumaa taxaw ne leen kaay leen saa kër bàyyi ndax mu benn leenu wala may wuy ji bàyyi keneen ne ko danoo bëgg a benn moo tax nu ñëw sa kër bàyyi loolu kenn ko nangu waaye nag ka yàlla yebaloon mu ñëw saxaaba ya toppoon ko sa bàyyi toppoon ko sa maam saa bàyyi saa maam toppoon ko kooka nan dellu ci ndax mu benn nu nuy delloo ci moom nan jàng lam fa indi woon xam ko jëfandikoo ko suñ ko defee benn la ñuy doon du jar sax nuy dajaloo naan kaay leen bennoo dañuy jekki-jekki rek doon benn su ma dajeeg yow la moom laa gëm sooy julli na ngay jullee noonu laay jullee soo toogee di waxtaan la ngay wax laay wax la ngay wattandiku laay wattandiku sa jikko mooy sama jikko kooku jëratu nu nu naan kaay leen ñu def benn séminaire ndax nu mën a bennoo yeex na bennoo na te kat looloo ngi fi matière bi ci boppam mi ngi fi alxuraan jaa ngi fi na saa ngi fi réer doo nga fi nekk nag ak ñàkk a topp ak topp bànneex ak àdduna waaye su fekkee yooyu yëpp muy bànneex yeeg àdduna yeeg intérêt yëpp teg nañ ko fële del si ubbi école yi jàngale ci alxuraan ak sunna ñetti at ñeent juróom xeetu Sénégal doon ñeen bokk luñ gëm bokk luñ nekk seen kàttan del siwaat feebar bi nag du feebaru Sénégal waaye feebaru àdduna la foo dem fu ne am na gàllankoor yoo xam ne ñoo dox diggante nit ñi ak benn noonu benn googee nag mënta am ci jullit lu dul dañoo dellu ci alxuraan ak sunna mooy saafara si fi nekk tasaaroo feebar la feebar bi benn garab la am mooy dellu ci alxuraan ak sunna suñ ko jëfandikoo wér suñ ko jëfandikoo duñ wér mu jeex moo tax borom bi tabaraka wa taala wax ne fa in amano bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq nee na suñ gëmee jullit yi ñëw ëllëg suñ gëmee ngëm gu mel ne ngëm gii saxaaba yi gëm ñi nga xam ne yonent bi jàngal na leen ba yar leen ba noppi ci ñoom ñii ñëw ëllëg suñ gëmee lu mel ne lii ñu gëm nee na kon ñoom ñëpp dañuy ànd doon ñu gindiku maanaam ñooy bokk luñ nekk mu ne wa in tawallaw su fekkee dañoo woon gannaaw loolu nag fa innama hum fi shiqaaq nee na ci ŋaayoo ci la ñuy dund ci la ñuy dee ci ŋaayoo la ñuy dund ci la ñuy dee yàlla nañu yàlla musal ci loolu kon tomb bu njëkk bi ci société bi gën a jëriñu tomb bu bi bi njëkk a jëriñoo ci roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak dellu ci sunna moo di benn ñaareel ba moo di ishaatul amnil am pour ñu am securité ci seen lépp jël si ci alquran ak sunna moo ko mën maanaam yar leen ci kenn ku ne xam ne ne ñàkk sécurité bi mi ngi ci réew mi tasaaroo fenn ku nekk nit ñaa ngay jàmbaar naan bu guddee làmp yi fay bu guddee nangam nangam loolu lépp nit ñi dañ leen a yarul yarub kiñ yar gii ne ñàkk du tax mu dem sàcc ñàkk du tax mu agressé nit ñàkk du tax mu lor doomu aadama ñàkk du tax mu lekk alalu jàmm kooku gëm na ne alali àdduna borom bi moo ko séddale te dafa am fu ko teg kooku borom jom la kooku day liggéey kooku day tasaare yiw kooku day tasaare mbaax doonte sax day xëy di tasaare mbaax boobu te bàyyiwul ci këram loo xam ne bu ñëwee moom lay añee askan wu mel noonu suñ ko soxlaa bëgg a gindiku bëgg suñ sécurité tasaaroo fenn fu ne mu àgg fa jàngal nit ñi alquran ak sunna moo ko man leneen nag mënu moo tax borom bi ne alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ñi gëm yàlla boole ko seen ngëm yàlla boobu jaxase wuñ ko ak dara amul bokkaale boole ko roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñooñu ñoo am sécurité fii ci àdduna ñooñu ñoo gindiku gindiku boo xam ne moo leen di jëriñ ëllëg ci àllaxira bokk na ci itam moo di borom bi tabaraka wa li ñuy tudde an nasr wa tamkiin mooy xeet bi nag amaat kattan amaat doole del si nag ba seeni noonu respecté leen teg leen ci seen place ci seenu benno rek la mën a amee ndax tàqale boo gi moo néewal doole xeetul lislaam waaye bu fekkoon ne dañuy limoo kët xeetu lislaam kenn gënatu leen a bari waaye bu baree ba noppi nasaxit loolu amul njariñ kon bennoo gi tàqalikoo gi moo leen néewal doole ni ko alxuraan waxe bennoo itam mooy tax ñu mën a euh, amaat kattan gu mel ni gañ amoon ñu tegaat leen place ba ñu leen tegoon te loolu borom bi tabaraka wa taala dig na leen ko ci suratu nuur nee na waada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa alladina min qablihim nee na yàlla dig na leen yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm boole koog di jëf-jëf ju baax nee na dana leen wuutalaat bi ci kaw suuf ngeen dellusiwaat doon ay njiit jàpp ndalal leen ci kaw suuf ngeen yore ko comme nin ko jàpp ndale woon la leen jiitu wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtada lahum diine ji nga xam ne moom la yàlla bëgg dana leen ko jàpp ndalal ba ngeen mën koo dund te dara du dox seen digganteeg moom wala yubaddilannahum min baadi xawfihim amna seen ñàkk sécurité gi dana leen ko wuutalal ak sécurité gu mat waaye loolu condition yi mooy lan na nii laa yushrikuuna bi shay'a dañ may jaamu te bañ ma bokkaleg dara wa man kafara ba'da dhalika fa ulaa'ika humul fasiquun ku weddi yàlla nee na kooku moo di kàccoor kon su fekkee jullit yi bëgg nañ seen kàttan del siwaat seen i xam-xam tolluwaat fam tollu woon seen i noonu teg leen fañ leen tegoon ci wàllu respect faaw ñu del siwaat nag toppaat alquran ak sunna faaw ñu del siwaat bennoo bennoo googu ci topp alxuraan ak sunna ci la mën a amee te su ci mën a su ci amee seen kattan dana del siwaat ku leen war te yàpp du leen yàpp te borom bi tabaraka wa taala mi leen digoon ne dana leen moomal suuf ak li ci biiram suñ melee noonu muy jëlaat àdduna ak li ci biiram teg ko ci seen loxo ñu jiite ko comme ni nga xamee ne xeetu lislaam ba jiboon ci saxaaba ya ak ñi ñëw seen gannaaw yàlla dafa tegoon ci seen loxo jiite àdduna ba kudul ñoom di ñëw ci ñoom di jiggaani ci di jéggaani ci am-am yàlla na borom bi tabaraka wa taala jàpp ndalal loolu xeetu lislaam te jàpp ndalal loolu yépp ak dellu tuubaat sellalaat pas-pas yi sellal xol yi sellal jëf yi dellusiwaat ci alxuraan ak sunna jéem koo jàng jéem a dundalaat jàkka yi ak daara yi ndax xeet mi sosuwaat ak sosu bu bees ndaw ñi doonaat ndaw ñu bees ñoo xam ne dañuy jàng diine ja yàgg waxuma la diine ju bees diine ju bees moom baaxut waaye diine jee yàgg mooy diine yi saxaaba doon dund ak ñi nga xam ne ñooñu la saxaaba yi yar yal na borom bi tabaraka wa taala jàppandal loolu ci sunu xeet ak wépp xeetul islam lii mooy gàttal li nga xam ne moom lañ jotoon bàyyi xel ci jotaay bi di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole ñu tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la mètre cinquante jazakumullahu xayran barakallahu fiikum eh, mbokk yi kon li ñu déggee waxtaan bi yal nañu yàlla subhaanahu wa taala fayal cheikh bi gën gaa rafet ci pay ndax yëngatum dañ ci nekk ñun ndaw ñi ku ci nekk sa gox ba nga nekk ngay yëngatu ci fa sa xam-xam yem ak sa man-man waaye jotaay mel nii day baax lool yenn ci ay masaa'il ñu delluwaat ci boroom xam-xam yi ñu gën ñoo leeralal yoon kon yàlla na yàlla subhaanahu wa taala fayal ñu cheikh bi kenn jaara fatuk pay waxtaan wi delloo nañu ci topp wi nga xam ne moom lañu war a topp yonent bi saa sallam ak tamit topp woowu ci yan anam lay nekk gis nañ ne danoo war a topp yonent bi salaa sallam ci jaamu yàlla moom na mu jaamoo woon yàlla waaye ci anam yam ko defe woon ak yéene gam ca amoon yooyu yëpp dañ ko cee war a topp du ñu guddal ci taaliq ci waxtaan wi ndax waxtaan wi matale na la def rek mooy dem jëfe waaye insha allahu taala waxtu waa ngi dem dañuy jox imam Sarr mu sànni ay kàddu ndax kàddu yi sax daanaka moo waroon jiitu waaye ba ñuy tàmbali waxtaan wi fekk ko fi woon loolu taxit incha allahu taala ñëpp ko kàddu gi mu sànni ci bu ñu paree ñu ñëw ci laaj yi ndax tamit am na ci solo aleykum wa rahmatullah incha allah ci laaj bi laaj bu njëkk boroom day laaj ndax am na ci lislaam bidaa bu rafet ndax nee na jamono yëpp dañuy dégg ay boroome xam-xam yuy wax ci média ne am na biddaa bu rafet nee na ndax loolu lu am la ñaareel ba nee na nga firil ko xadis man ahdasa fi islami sunnatan xasanatan nee na firim xadis boobu aussi ñu dimbale ko ci ñetteelu laajam ne Bilal radiallahu taala anhu da julli ñaari ràkk te ñaari ràkk yooyu yonent bi diggalu ko ko nee ndax loolu ndax loolu Bilal la loolu moom mooy waraka bu njëkk bi Hmm. waaw ñaareel ba kii day laaj salaatu tasbih est-ce que lu sax la ci sunna wala bi kii day laaj lan mooy àttee fulbal maanaam jouer fulbal ak àttee seytaan ko ñeenteel ba kii dafa wax ne moom fi mu nekk dafay gis ñoo xam ne dañuy def muxaalafaat yu bari maanaam ay njumte yu bari daal ci lañ nekk waaye moom du leen laaye biir ngir ne dafa ragal bu laaye biir du am njëriñ loolaa tax moom daa mujj rek jàpp njaamuram bi ci wax dara bon juróomeel ba euh, kii dafa ne wax la ci waxtaan wi ne bu ñu rendee tabaski ci fan bu njëkk ci weeru tabaski ak fan yi te topp yépp avant le dix boroom amul tabaski waaye est que bu ñu ko rendee ci ñaareelu fanu tabaski bi maanaam fukkeelu fan ba benn ndax loolu dina dina baax ndax lislaam dina ko na mën nañ ci pare ñu dellu allah الحمد لله اللهم لا علم لنا إلا ما ñoo ngi rafetlu bu baax a baax euh, euh, doxinu mbokk yi ci waxtaan wi ak doxin yi ci seenu nekkee bi ndax it wax dëgg yàlla ay ndaw yu jiital seen imaam tam euh, jox ko place biñ ko war a jox aajawoo nañ ko ci liggéey yéen yi ñu respecté mag ñi ak jox leen place yi nga xam ne ci lañ war a nekk nekk ci seen gannaaw di liggéey mag ñee yaatal leen ci biir liggéey booba loolu lu jaadu la ndax dañuy ñaar ñoo xam ne mënuñoo ñàkkante ndaw moo yor kàttan moo man moo mën a defar moo mën a yàq su bëggee yàq kon ndaw moo toll ci yëngu mag nag moo toll ci xalaat kon dañuy wax ne faaqatu shabaab bu àndeeg xikmatu shuyuux xam-xamu mag ñi ak seeni xel ak seenu gis bu sori su àndeek force bi nga xam ne moom la ndaw ñi ànd moom la ndaw ñi yore suñ àndee ñoom ñëpp jëm ci njub loola nga ñaay lu mag a mag lay doon ci lislaam kon noo ngi ñaanal mbokk yi seeni mag ak seeni ndaw yàlla boole leen teg leen ci siraatul mustaqim ñu ànd ci liggéey ci cadre boobu laaj bu njëkk bi ndax bidaa bu rafet am na ci diine wala amu ci Eh, jaadu nañu xam biddaa mooy lan biddaa buñ ko waxee mooy ak jaamu yàlla lay doon maanaam ki koy def daa jublu ne moom mii lii muy def ak jaamu yàlla waaye jaamu yàlla googee nangu na ne yonent bi jaamoowu ko woon yàlla saxaaba yi jaamoowuñ ko woon yàlla ndax loolu mën naa rafet ci diine lislaam déedéet mënta rafet ci diine lislaam lu tax mun ta rafet ci diine lislaam mooy dafa làmboo maanaa yu yàqoo yàqu yu bono bono bon maanaa ba ci jëkk mooy yow mi indi jaamu yàlla goo xam ne nangu nga ne lii ak jaamu yàlla la bokk ci diine lislaam te yonente ci saxaabaam daawuñu ko def kon nee nga xam nga jaamu yàlla guñ xamul woon wala yaa ngi def jaamu yàlla guñ jëful woon loolu du génn ñaari mbir te junjoon naa ko ci biir waxtaan wi mooy benn kii def lii dafa tuumaal yonent bi ne xamu ko woon muy musiba mu rëy wala mu tuumaal ko ne ko xamoon na ko waaye da koo nëbb woon jottaliwu ko muy meneen musiba moo xam ne moo gën a rëyati kon loolu ci ay ñaaw ñaawi biddaa ci la bokk ak biddaa ba nu mu mën a mel beneen ba ca def moo di buntu biddaa suñu waxee ne rek xasana la xasana mooy lu rafet kan moo ne daa rafet ndax sharia la wala xelum doomu aadama ko wax su fekkee sharia moo wax ne lii lépp biddaa la waaye bu rafet la dañ naan ko kon ana dalil bi ko sharia waxee ndax alquran la wala sunna su indee alquran wala sunna buy wane ne jëf jii rafet na kon nu ne ko ah yow kat kon yaa xamul biddaa waaye lii du biddaa ndax lu alquran nangu ak sunna kooku génn na kaadaru biddaa dugg feneen ndax waxoon naa ne biddaa mooy loo xam ne yàllaa ko yonentam andi wuñ ko maanaam nit ñee fental seen bopp su fekkee nag ne alxuraan ak sunna rafetlu wuñ ko waaye rek xel yi ñoo ko rafetlu dañ naan ko xel moom du diine ndax xel la muy rafetlu mën naa bañ a dëppoo ak la diine bëgg waxoon naa la sànq ne xel ci boppam bu defee calculam danaan la ki julli tisbaar ñeenti rakka rakka bu ne ñu fay ko ci fukki tuyaaba muy ñeent fukk kon bu ca dollee benn dana am juróom fukki tuyaaba loolu la xel di wax ci calculam waaye diine dana ko déedéet bu ca dolli benn lépp yàqu na sax kon moo tax Ali ibn Abi Talib radiallahu taala anhu da daan wax ne bu fekkoon ni diine ci am xel képp la tegu kon sa kawas yi nga sol yi sang bi masaa ko ci suuf mooy gën a dëppoog xel nga di ko masaa ci kaw mu ne waaye leen jàngi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kuy masaa sa kawas ci kaw ngay masaa lu tax mu ne ci suuf a gën a dëppoog xel mooy kiy masaa di faxas dara la nga xam ne moom la nit ki doon doxe mu féete suuf loolu mooy gën a tax xanaa loolu la war a gën a mën a fax kon ñu ne waaye déedéet sharia dana ko mu masaal ci kaw foo xam ne mu taxul ñu ne ko masaal foofu kon sharia ndigalam ak tere foofu la ñu kon xel ci jëmmi boppam doonul sukkandikukaayu sharia xel dañ koy jëfandikoo ngir dégg li sharia wax waaye duñ ko jëfandikoo ngir fent sharia xel loolu tax koo jóg euh, te rafetlu moomu dafa doon lu doy waar yow kuréel li nga ne dafa rafet beneen kuréel ngi sa wet ne loolu lu ñaaw la loo ci man fu ngeen di attewoo yow jëmmi doomu aadama ci sax dara day rafet fi yow tey ëllëg boo ko xoolaatee da nga naan man de xaw ma lii nu ma defee woon lu rafet la rek lu ñaaw lii yow mi ko rafet rafetlu woon yaay dem ba ñaaw lu ñaawlul ko yow ci sa jëmmi bopp kon rafetlu xel saxut loolu moo tax jëmmi biddaa ci bopp mënut a am biddaa boo xam ne rafet boo duggee nag ci waxi borom xam-xam yi. fii boo xoolee li ëpp ci li ñuy wax nga xam ne ay nit a ngi koy tegtaloo tey jàpp ne biddaa la bu rafet boroom xam-xam yi di ko ko tuddee ñi naan biddaa dafa sedd li ko ñaari xaaj xaaj bu rafet ak xaaj bu ñaaw wala ñu naan juróomi xaaj la am dafa dëppoog ahkaamu sharia boo xoolee ñooñu biddaa ba ñuy wax bokk la biddaa bi ñuy wax moom ñoom biddaa ba ñuy wax mooy yi sosu ci jamono yi sosu ci jamono boo demee ci al is ibn abdusalaam da ko koy fekk boo demee ci suyuti ci kitaabul ittifaq da nga ko fay fekk kenn ku ci ne bi mu séddalee biddaa ay xaaj misaal ya muy joxe ca ngay xame ni kii waxul biddaa ci diine ndax ki wax ne biddaa day séddalikoo ay xaaj wax ne am na ci biddaa yu rafet daal lay indil misaal ne la ak tame ci la bokk tamit bi ñuy jëfandikoo di lay xam nga ne kooku waxatul waxu jaamu yàlla leneen lay wax kooku fa muy waxee mooy matériel yu bees yi sosu te amul woon bu njëkk lépp loo ci xam ne lu baax lu rafet la su fekkee ne day dimbali nit ñi ci luñ sopp ñu ne kooku ab àtteem mooy luñ sopp la su dee dafay dimbali ci loo xam ne lu war la ñu ne kon ab àtteem lu war lay doon su fekkee nit ñi dañ koy jëfandikoo ci lu xaraam ñu ne kon dafa xaraam bu dee luñ sib ñu ne dafa sib bu dee lu dagan kese ñu ne kon loola dafa dagan kon yëfanukaay yi foofa la ñuy waxee ak jumtuwaay yi waaye man de wax dëgg gisaguma borom xam-xam nag boo xam ne au fitam àgg na ci mu définir bidaa ne bidaa mooy loo xam ne ak jaamu yàlla gu soosu ci diine la boo xam ne yonente bi ci saxaabaam xamuñu ko ba noppi woon ba sigu ne la ñaari xaaj la bii daa rafet bii ñaaw loolu moom gisaguma ko fenn te waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi gën a mag la ay wax ci ñëpp daf ne fa inna kulla bidaatin dalala bépp bidaa bu mu mën a doon rek nee na ak réer la moom nag bidaa ci diine lay wax kon ñu xam ne bu dee noonu dan ne bidaa mooy lu bees ndax bidaa ci kàllaam ak arab li muy firi su dee dañ ciy jublu jëfandukaay yi ñuy jëfandikoo su fekkee ne lu am njariñ la te bokkul ak jaamu yàlla gi loolu lu baax la bu njëkk ku masaan bëgg a bind da nga daan dem ci bant jël ko sot ko ba mu ñëw nga wut daa joo xam ne moo xam da nga ko soose ci cin wala da ngaa jënd encre defar daa di ca sëpp di bind di noonu lañ daan binde ñu dem ba jëmmi jamono loola néew na léegi xëy na mi ngi am waaye néew na nit ki day dem ci bitig bi rek jënd bigam daal di ñëw jël aw kayitam toog di bind kooku dañuy wax ne lu sosu la waaye nag sosuwul ci diine daa sosu ci njëfandukaay yi su ko defee kooku kenn du wax ne lu bon la moo tax léeg-léeg damay waaru damay dégg ñuy wax ci rajo yi naan gaa yi nga xam ne soo waxee rek ñu ne biddaa la soo waxee ñu ne biddaa la te pourtant ñoom ñu ngi lekk mango te yonent a sallallahu alayhi wa sallam daawul lekk mango ñu ne maanaam loolu ñàkk a dégg diine ak xam ki ngay waxal fan lay waxe la ñii wax naan bitaa baaxul ci jaamu yàlla lañ wax julli ga ak koor ga ak natt ga asaka ak aj ga la ngay tawaaf ak la ngay dox nga yemale ko ci la yonente ba doon def foofa la ñu waxee waaye àdduna beeg njëfandukaay yi tey su ngeen mën a yokk bay naaw ci jaww ji di dem ak di ki leen lu baax la loo amal njëriñ ci doomu aadama la su boobaa nag tàggat di ko jëriñoo ci jaamu yàlla su boobaa mën nga ko tàggat bu nekk moyen ci jaamu yàlla waaye du moom ci boppam mooy jaamu yàlla bi kon bidaa bu rafet mënta am si diine amma xadis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man sanna fi lislami sunnatan xasana parce que nas bu wér man sanna la wax waaye waxul man ahdasa man sanna fi lislami sunnatan xasana koo xam ne sunnaal na ci lislaam sunna su rafet nee na kooku day am payug loola ku ko toppandoo ca loola it da ngay amuk pay te du ko yàqal dara ci liñ ko waroon a fay waaye man sanna fi lislaami sunnatan sayyi'a mu ne ko sos ci lislaam loo xam ne lu ñaaw la nee na ku ko ca roy da ngay am ci mu ñaaw loolee da nga am bàkkaar te du tax mu wàññi dara ci bàkkaar man dama ne xadis bi ci yi gën a dëgër ci luy dàq biddaa bu rafet ci biddaa bu rafet ci lislaam ci la bokk ànd ak ne ñi bëgg a saxal biddaa bu rafet ci lislaam dañ koy faral di tegtaloo xadis bi dafa am lu ko taxoon a jóg te mbokk jullit yi ñu xam ne qaida bi boroom xam-xam usul yi di wax ne al ibratu bi umumi lafzi la bi xusuusi sabab muy texte bi bu ñëwee dañuy xool rek li baat yi wax terme bi la ñuy xool rek lim li mu wax rek ñu firee ko noonu waaye duñu xool lan mooy sabab bi ñu xam ne régal boobu doonu régal bu sori maanaam dëgër na ci yan texte waaye dëgërul nag ci texte yu bari ci sharia bi yu bari ci sharia bi dëgëru ci moo tax am na texte yoo xam ne ci biir sharia yu bari ngir nga dégg ko faaw nga xam lu taxoon ñu wax ko faaw nga xam lu tax ñu waxoon ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn xadis bu mu wax boo xam ne daf ci ne antum aalamu bi shuuni duniyaakum yéen yéen a gën a xam seen mbiri adduna am nañ doomu aadama yoo xam ne dañoo ñëw gëm laïcité mooy acte woo lu dul alquran ak sunna ñu ne xadis bi mënees na cee tegtaloo ngir acte woo alquran lu dul alquran ak sunna ci suñ dund gi ndax yonente bi nee na yéen yéen a gën a xam seen mbirum adduna kon nee na organiser leen seen mbirum adduna mooy atte leen ko ci seen i loi ne ah waaw xadis bi est ce que loolu la wax ñu ne ah al ibratu bi umumil lafz laa bi da ngeen woon rek texte moom la mu wax ci kaw mën nga koo jël jëfandikoo ko te doo xool lu ko taxoon a jóg kon foofu la mu sukkandiku noonu itam ba ne kon jarul ñuy atte woo alquran ak sunna waaye nañ atte woo rek li waaye fekk loolu tax koo jóg lenn lu nekk dafa am léeg-léeg xadis bi day ñëw ngir nga dégg ko faaw nga xam lu ko taxoon a antum aalamu bi shuuni duniyaakum yéen a gën a xam seen mbirum àdduna yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa gàdday ñëw Madina fekk ñuy bay tàndarma te ñoom waa Makka bi ñuy bay kët mu gis ñuy def li ñuy wax takbiir muy góoral mooy di jël ci tàndarma ji euh, tàndarma gu góor gi am na ay tóortóor ay yuñ cay jël def ca bu jigéen ba pour mu meññ talqiix dañ koy tudde wala takbiir yonente bi ne wala ñii li ñuy def lu mu doon mu ne ñii day lii ñuy def ci seen mbay mii tóortóor yi dañ koy jël dugal ko ca jeex su ko defee day meññ lu bare bare bare mu ne leen ah su ngeen ko defal woon itam day mu meññ ah, ñooñu dégg ko noonu defe ne day wax moom ci kaw ne ab yonent la fekk moom ci ijtihaadam lay waxe ci diggante mbay ak mbay loo ji ci wàllu adduna foofu lay waxe ñu ne ah, kon ren nañ ko bàyyi ginnaaw moom kat nee na kat suñ ko defati dana meññ ñu bàyyi ko waxtu tàndarma jot waxtu ñor jot dara jur amuñu tàndarma faf ñu del siwaat ci moom ah nun kat lan doon bëgg a def yaa nu ko waxoon léegi nun euh, defuñu ko suñuy tàndarma ñëwul mu ne leen antum aalamu bi shuuni duniyaakum la mottali xadis mooy su ma leen waxee loo xam ne wax yi bu jóge ci saa borom la jël leen waaye su ma leen waxee loo aju seen wàllu àdduna jëfandikoo leen seen seen seen expérience ak seen xel kon bu yonente bi ne yéen gën a xam seen i mbir ci wàllu àdduna waxul ne ngeen jël seeni loi atte woo ko ci lu dul alquran ak sunna ndax alquran ak sunna luy atte nga ci biir lépp loo xam ne luy baaxal doomu aadama la adduna ak àllaxira ngi ci biir alquran ak sunna waaye nag lu aju ci mbay maag industrie baag nooy sàmme say nagam sa mbaxana mi nga sol noo koy ràbbeet solo lone gi noo koy defee bi bu la ngay bindee bu ñuul ak yu mel noonu loolu seen mbiri bopp la yoo xam ne mbiri adduna la yoo xam ne yoonu wax yu nekku ci foofu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di loolu moo tax mawridu xadis bi foofu ñu soxla ma ne xadisu man ah man sanna fil islaami sunnatan xasana bokk na ci xadis yi nga xam ne ngir nu dégg ko faaw ñu dellu ci li ko taxoon a jóg yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa nekk ci jàkkaam ay nit dugg yoo xam ne ñu ñàkk lañ ñàkk bu metti bokk ci giir bi ñu wax ni maar yonent bi gis leen xar kanam bi soppi ko lool mu am lu ko naqari ndax su gisee jullit nekk ci lu metti loola daf koy metti ñu julli ba àggal mu soññee ci sarxe sàkk sarax naka mu ko def bilaal daal di lal mbalaanam jullit yi fas lañ am di ca def kenn ku ne loo am nga def ca jàppoon nañ ne biñ jullee ba sëlmal sarxe si ñuy soññee mooy kenn ku ne lam fa yor rek mu joxe ca waaye seen xel demul woon ci dem ca kër gi jëli dara bi amee kenn ci lan saar yi nag mu daal di génn jàkk ji dem ci këram nag jël fa or bu bari ñëw teg ko ci mbalaan mi ñi ci def ne ah kon kër génn jël yi ginnaaw mën naa am kenn duñu ci man daal di génn ñoom it jëli indi génn jëli indi kii def ko kee def ko kee def ko ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam xool gis jalu bi yéere ak or ak xaalis ak yu mel noonu kanam gi daal di bég mu ne ah ku yoonal ci lislaam loo xam ne day lu rafet la loola ka ko ca roy day am tuyaaba ju toll ne amoon te loolu du ko yàqal dara ci kon foofu kan lay wax mooy ki jëkk a dem jëli indi ki jëkk a jëli indi li mu jëkk a indi la mooy lan mooy sarax sarax na mu dagan bu yàgg ci lislaam sharia santaane woon na ko bu yàgg ñaareel ba lii ñuy def yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo leen ko digal kon foofu luñ sos amut foofu waaye fii ci ijtihaadam dem na indi loo xam ne bi mu ko indee yonente bi saxal na ko ndax soo ñeene loolu lépp sunna moo nekk foofu mais li ñuy tudde bidaa amut foofu moo tax tegtaloo ci ci yii ma rafetal bi daal ci àdduna ci sunna moo kay tegtaloo xadis ba léegi di wax ne mën nanoo bañ a àtte waa alquran ak sunna ñoo yem texte amul kii amul séparation seen am amma nag ne Bilaal radiallahu taala anhu daf daan julli saa bu jàppee julli ñaari ràkka bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko damaa dégg sa dàll yi di fa àjjana lu ko yëngal mu ne ko ah man de mosuma jàpp lu dul dama julli ñaari rakka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rafetlu loolu ne ko loolu moo tax kon nga lool dal la fekk ngi foofu boo xam ne bu am solo la bu mat a moo di bilaal doon na julli ñaari rakkaa yooyu kon te tàgguwul woon yonent bi sallallahu alayhi damaa bëgg saa ma jàppee julli ñaari rakkaa loolu wér na na ko def na yeneen saxaaba yoo xam ne ay zikkar yoo xam ne yekki nañ ba yàgg ñu di ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dem ba mu yàgg mu laaj kan moo wax nangam léegi mu ne ko man maa wax lii mu ne ko damaa gis malaay malaayika yi ñiy jëkkante di ko bind kon ki ñëw ne la saxaaba yi noonee ñu doon def nga xam ne xaw nga koo mën a tudde fétal ci jaamu yàlla mooy làmbatu wane ne ñépp a ko man maanaam ñépp a ko sañ loolee ñu sañoon ñépp a ko sañ man jàpp naa ne réere diine weesuwut lool kooku li muy firi mooy suñu wéyalee loolu mooy gis bu ne diine ji mën nañ cee dolli dara kenn ku ne am nga droit ci loo xalaat ne kon baax na nga dolli mbokk jullit yi li ma ta xàmmee mooy bokk na ci lu rëy li tàqale suñ diggante nun li ma jubli ci nun mooy ñi ñëw gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam denc nañ ko ñu door a juddu li nu wutale ak ñoom ñëpp mooy kaaraange giñ amoon ñoom ña doon dundal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun amuñu ko lu tax amuñu ko mooy kii dund wax yu di wàcc su ko neexee mu féetal lu ko neex def lu tax mooy lim def su dul noonu alxuraan dana wàcc ne du noonu su dee noonu dana wàcc ne noonu la waaye yow soo defee su dul noonu kan mooy wàcc ne la noonu la wala bu noonu amatul loolu moo tax euh, soxna sa nu mu tuddati ummu ummu ayman bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna Abu Bakar ak Omar ñëw di ko seet di ko siyaare ne ah kii kat yonent bi da ko daan siyaare xaar leen ñu siyaare ko dañoo ak si toog di waxtaan ak moom ba mu yàgg mu jooy jooy yu metti ñu ne ko ah, yow looy jooy bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa ngay wax kooku yàlla dugal na ko àjjana jaratul jooy mu ne ko doon lool rek du ma jooy man xam naa ne yàlla dugal na ko àjjana mooy wax yu daan wàccee ci asamaan da daan jóge ci asamaan bi ñëw ci suuf dagg na mooy tey li ko doon diine rek moo doon diine dara lu bees mënatu la ñëw mooy ku juumati sa njuum ca day wéy waaye kenn du ko wéral saxaaba yi dañoo amoon benn mi zalla muy kaaraange bu leen tiim boo xam ne kum neex mën ngaa làmbat moo tax jaabir ibnu abdullah bi ñuy wax ci wàllu asl ci xeetu séyin la daf ne dan ko daan def fekk alquran a ngi wàcc law kaana shay'an yunha anhu na lazala alquranu binnahi anhu mu ne dan ko def fekk alxuraan a ngi wàcc su fekkoon ne li ñuy tere la kon alxuraan tere ñu ko kon boobu kaaraange gi amoon ko moo taxoon ñu sañ def yu mel noonu moo tax bilaal sañ a julli ñaari rakka moo tax keneen sañ a tudd dikk sàngam moo tax kay aslu sañ a aslu te alxuraan néewu ko def wala bu ko def ndax xam nañ ne alxuraan a ngi wàcc te yàlla lépp la xam te ku ci def lu dul noonu dana ko yëgal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn ci alxuraan mu tere la ko wala mu yëgal ko ko ci beneen wax yu mu woola tere la ko wala mu digal la ko ne la loolu baax xam nga ne ka toog di wax ne bilaal say daal laa dégg mu yëngu fa àjjana kooka xam na li nga xam ne loolu la bilaal di def boromam xamal na ko ko loola moo tax ba mu ko saxalee ne ko kon looloo ci lañ daal di xam ne kon loola day daal doon sunna bu wéy ba faaw moo tax saa boo jàppee sañ ngaa julli ñaari bàkkaar lu tax mooy sunna taqriri yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxal sunna mooy li yonent bi jëf wala mu wax ko wala ñu def ko mu wéral ko su doon jamono tey da nga ñu def ko mu teg ci kaasheem kon bilaal bi mu ko ne ñaari rakka yooyu lay julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam teg wéral na ko bi nga xamee ne keneen nee na ko ci kër sàngam laay def wéral na ko yépp jaamu yàlla boo xam ne dañ koo def ci jamonoom mu yëg ko nangu ne loola baax na loola day baax ko faww ku jàpp ne nag loola mën nga caa tegtaloo ne bi jógee am nga liberté jaamu yàlla bu la neex nga sos nag dugal ci diine ji ndax bilaal defoon na ko ah kooku yow la la wutaleeg bilaal bis boo dajee sa borom ne du rëy la mooy bilaal su juumee am na kuy dund ak moom koo xam ne yonent la moo naan ko nga su jubalee am na kuy dund moom ko naan ko nga te yow loolu nag kon loolu qiyaasu na al faariq faariq bu toll ne asamaan ak suuf sax la salaatu moom wérut maanaam xadiis bi ci ñëw ay xadis sax la nag yu bare bare bëri waaye benn xadis bu ci wér boo ko boolee sax ñu mën a dëgëral ci ba mën a cee tegtaloo loolu moom wérut donte am na nag ci ay boromi xam-xam ñoo xam ne ñu ko wéral la loolu ci maanduti ci wàllu xam-xam ci la bokk mooy am na boromi xam-xam yu bare bëri yoo xam dañoo jàpp ne xadis boobu bu wér la waaye wérut yàlla dogal na def nañ ci baax boo xam ne topp yoon yi nga xam ne yëpp xadis boobu ñëw na ci ba dajale ko mu doon ëpp risaala bu ndaw xam ne euh, mi ngi ci biir Euh, site web bi nga xam ne ci lañuy faral di dugal suñuy suñuy yëpp muy drmalo point com ku ci jàng arab boo demee ci sit boobu da ko fekk baax si boo xam ne ci salaatu tasbix ci la aju am football nag ci def ko ak seetaan ko ñaari mbir la nag yoo xam ne ñu li ndax bépp sport bu mu mën a doon euh, di ko def dañuy wax ne su fekkee ne mucc na ci lu ñuy pere lu baax la waaye ci toog di seetaan moom jëriñuwul dara ala kulli kii def mi ngi jëriñu ci yaramam waaye kii seetaan jëriñuwul dara loolu ñu xam ko tàpp séparé foofu kon kii def am na yuy daje sport doon bu baax ci lu dul naan lii football laag handball laag leneen laag lu mu mën a doon na doon loo xam ne wuñ ñii aw yaram nekku ci wu wuñ aw awra kon góor a tax ñuy wax ndax góor moo mën a def yu mel noonu te wu ñëwul awraam waaye jigéen moom la ko lislaam solloo kenn mënu ko sol di gudda wala boog su koy def xanaa fa nekk moom dong dong moo fay nekk te du am benn nataal bu leen di photo du leen génne ñoom jigéenu gese ñoo fay nekk xëy foofu lay am waaye ala kulli xaal góor gi la muy sol diggante jumbu xam ak wóomam dara sañu cee feeñ ndax loolu mooy awraam benn ñaareel bi warta doon luy dox digganteem ak jaamu yàlla néew na nga gis ñu nekk ci diggu match ba mu yàgg ñu ne nañ ko arrêté julli kon naa nga foofa joo xam ne day tee nit kon yow mi nga xam ne yaa ngi sport te mën ngaa sol lu jot moo xam da ngay football wala da ngay karaté wala da ngay def leneen waaye sam sol sam col jot na te yàqaluloo sa jaamu yàlla bu waxtu jaamu yàlla jotee nga dem jaamu yàlla ci te la sa yitte bu liggéey jotee nga dem liggéey kooka bu boobaa sa sport baax na su safaan ba amee nag sport bu baaxul ci toog di seetaan it dañuy wax na li ci ëpp mooy seetaan moom sànq waxtu lay faral di doon ndax du la jariñ ci sa wàllu wér-gi-yaram du la jëriñ ci leneen waaye nag seetaan moomoot ngir mu dagan ngir mu doon lu dagan mooy faaw ñu tënk ko su fekkee awra ngay feeñ sañoo koo xool su fekkee cànku jullee nga ciy dugg wala jàng ak jaamu yàlla boo doon a sànku loola sañoo ko waxtu liggéeyee nga ciy sànkuwaale wala waxtu jàngi ba tey loola sañoo ko étudiant bi war a fay defi examen wala élève bi toog ci ngoon bi yëpp di seetaan bëri wala mu seetaan football ba am njàngam yàqu kookam njàngam yàqu na def na lu xaraam boole ci kon ñi xam ne lenn lu mu ci mën a doon dafa am ay bawaabit ànd ak ne mumaarasa moom la lislaam gën a nangu ci mushahada muy jëfe gi moom la lislaam gën a nangu ci seetaan bi ki nga xam ne nag euh, dafa gis mbokk mbokki jullitam yoo xam ne dañuy def yu bare bari yu lislaam bi tere ba noppi du leen laaye biir ndax dafa ragal ne duñ ca jëriñu kooku mu ngi ci njuumte ki gis lu baaxut li war ci moom mooy tere ndax lu'ina alladina kafaru ala lisani daawud wa isa ibni mariam ay jooju boo ko jàngee borom bi tabaraka wa taala day wax ne eh, yàlla rëbb na ñi nga xam ne ay yéefar lañ ci làmmiñu Daawuda ak Isa zalika bi ma asaw wa kaanu yaxtaduun maanaam ngir seenu mooy yàlla ak seenu jalgati mu teg ci ne kaanu la yatanahawna an munkarin faaluuhu dañ daawul tereente lu bon dañuy def kon dem ba gis ñeneen di def lu bon te terewuñ leen ko kooku bakkaar bu rëy na moom na tere rek waaye baaxal ga ci loxo sunu borom tabaraka wa ci la nekk borom bi yonente bi alayhi salaatu ko laysa alayka hudahum du yaa leen di gindi yaa leen di gindi lasta alayhim bi musaytir wa ma ana alaykum bi wakil ay yu mel noonu dafa bari lool ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam di caagini mooy jubal mooy dëngal mooy waaye nag day digle wa ma ala rasuli illa al balaa yow li la war mooy jot li ci lu bon la nekk daal jaar ko ci yoon yi ñuy jaare ci laaye biir ak baaxe ko yee ko ko ndaxte lee yàlla baaxe ko mu jóg ci loolu su ci jógee alhamdulilah am nga jot toyaaba ju bari su ci jógut it am nga toyaaba yu jottali te sa jaan tam wàcc na eh, tabaski mi wax nañ ne mëni su ko rendi ci lu jiitu fukkeelu fan bi waaye ñu xam ne tabaski gannaaw fukkeelu fan bi ñetti fan la maanaam fukkeelu fan bi ak benn ku ci rendi am nga tabaski fukkeelu fan beeg ñaar ku ci rendi am nga tabaski fukkeelu fan ba ñett ku ci rendi am nga tabaski loolu mooy ayyaamu tashriq loolu borom xam-xam yi ijmaa nañ ci dëppoo nañ ci ne koo xam ne rendi nga ci am na tabaski waaye nag noonu ñu toftaloo noonu lañ gënante maanaam ki rendi ci bis bu njëkk bi moo gën le képp koo xam ne am na ko te rendiwul ci bis bu njëkk ba ki rendi ci bisub ñaareel bi moo ci tegu ñetteel bi moo ci tegu nu bi noonu wallahu taala waaw kon xam naa ñu dolli rek benn soal bi ndax euh, bu xaw a jamono bi la mooy yëngu-yëngu yi am ci day laaj yëngu-yëngu yi am ci monde islamique ci jamono yi nee ndax mën nga ci am daal ay kàddu yoo ci sànni ñi fi alhamdulilah liñ ciy sànni day lu gàtt lay doon moo di xanaa di ko mettitlu la ci gën a metti mooy dereti jullit yi tuuru te kenn xamut li muy tuuru lu mu doon kenn xamut li muy tuuru lu mu doon bi deret yi tàmbalee di tuuroog léegi ci yëngu-yëngu yu mujj yooyu muy wax nangami junni jullit ñoo ci dee nangam ci ay junni te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne mabb kaaba gi mabb kaaba gi moo gën a woyof te yàlla tuur deret ak jullit boo xam ne tooñul kenn kon ñu xam ne warunoo dem ba jëmmi jamono ñu jàpp ne dereti jullit yuy tuuru mën naa woyof woyofut lu diis a diis a la lu méttee méttee métti la loo xam ne tegu na ci kaw xeetu lislaam di ab natt boo xam ne xëy na bakkaari jullit yi moo ko waral wala leneen waaye ab jullit mënu cee am lu dul métitlu ko ak ñaan yàlla yëkkati fitna jooju mu teggiku jullit yi amma nag ay njariñ yiñ ciy séentu yàlla moo xam ndax njariñ nga ca am ngeen waaye day nuruwu ko njariñ loo xam ne day ñëwal jullit yi luy tukkee ca loola feeña gudde nuruwu ko ndax bu fekkee ñuy tegi plan la ak di doxal ak di jiima orienté mbir yi mu dëppoog ay intérêt jullit yi taxawuñ boobu taxawaay ci xew-xew yoo di xew jullit yi tey seeni njiir kenn ku nekk yaa nga boof fa nga boof di wax na yàlla na yàlla mosal ci loolu mu bañ a agsi ci samam réew waaye jotul nag njiiti jullit yi di daje nag bokk benn stratégie boo xam ne dañuy xalaat nu ñuy def ba lii di xew ñu tourné ko wëlbati ko ba lépp doon intérêt lislaam loolu moom gisuma jullit yi di taxaw taxawaay bu mel noonu waaye ñi dul jullit ñoom ñooy def loolu ñoo mujj mel ni ñooy conduire affaire yi ñooy xool lenn lu nekk fa mu war a jëm nan lañ koy tourné ba intérêt yi jël siwaat ci ñoom képp kuy jàngat mbir moomu jàngat ma xóot di xool lii daw ci jamono gis nga ne loolu tey kenn ku ci nekk yaa ngi dawal sa intérêt bopp ci réew yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp doole jullit yi tey waaye jullit yi kenn ku nekk yaa nga boof fu nga boof nga siiw a mucc xëy na loolu lépp mi ngi dellu ci tàqaloo jullit yi ak seenu néew doole goo xam ne ñoo ko néewal seen bopp doole di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu teggi fitna jooju te lépp mu delloo ko ci loo xam ne luy jëriñ jullit yi la wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh